hier aussi Sonko génn na il a fait vraiment un discours magistral macha allah résumé lépp quoi li nga xam ni euh, bu mu gëjee génn wax na lépp bu fekkee nit yi ils de bonne fois dañ xam ni wax ju am solo la wax wax ju am njëriñ wax joo xam ni nit képp kuy nit te yàlla baaxee la rek nga am xol bu rafet ak nopp. gor nopp garmi di nga xam ni waxu nit la wax wax ju am solo la wax képp kuy mala mbaam xuux am xol bu bon ak nopp mbaam naan gudd nopp taxoon dégg mbaam kenn du ko ndulli ñooñu it euh, <laughs> yaakaar naa dañuy dee seen xol bu bon ak seen xol bu ñuul mais du tere on avance on progresse vraiment noonu la yàlla def ñëpp mënuñoo bëgg waaye daal la majorité des sénégalais Euh, kontaan nañ ci waxtaan bi te am na solo te ku dégg tamit ku déglu dégg nga euh, de façon globale macha allah wax na ko mooy dina am ay reddition des comptes mooy maanaam ñi nga xam ni ñoo leen xiifal marloo leen rafle loo leen ñàkk loo leen seen alal sàcc seen alal fanal leen sosal leen tiñal leen taqal leen ray leen ñooñu ñëpp bandi yooyu mooy bandi foncier yi bandi financier yi bandi fiscaux yi ak bandi crime de sang yi ñëpp bu leen boolee ñu ne yoon dina leen topp donc bu ñu dajalee loolu da ngay xam ne dafa bëri am na ay nervi ci biir am na ay ministre ci biir am na ay maire ci biir am na ay député ci biir am na ay njiit APR ci biir bandi salte yëpp bu ñu leen boolee nee na dina am reddition des comptes maanaam li nga xam ne mooy justice dina leen topp dina leen duuti dina leen jàpp te ku ci nekk dina la futti li nga log di ko yàppi kon ngeen xam ni loolu rek guerre la loolu rek war na doy sénégalais yi guerre mooy li ñu musul am sénégalais yi musuñu lu leen rendre justice Ablaye Wade bu mu fi nekkee rey na quatorze doomu aadama Mamadou Diop bu mbuur ci la deyee ay butitam génn ci mbedd mi oto bi jaar ci kawam justice amul ak ñeneen booy bu ñu rey ba bu ñu rey ci Sangalkam justice amul noonu la naax saayee Macky Sall la ñëw moom it attewul dëgg ci lim mag euh, Abdoulaye Wade rey Macky Sall bu mu ñëw it moom rey na quatre-vingt-sept doomu aadama ñi ak ay mille cinq cent à deux mille détenus politiques yàq liggéey jàmbur et cetera et cetera kon Sénégal mi ngi doog a am justice mi ngi dogo maanaam Sénégal ñi ngi doog commencé am yaakaar ni fii léegi buñ la tooñee mun ngaa mun justice mun na la fajal mun na la fompal say naqar loolu nag mbégte boo xam ne sénégalais yëpp benn président wala premier ministre musul jël engagement ne day faj naqaru doomu aadama yi ci tooñ gu ñu leen tooñ ci liñ leen teg ci musiba yi ñu leen teg loolu mi ngi doog am Sénégal loolu rek buñ ci jot buñ ci yemoon sax mu neex bu dee ñun bëgg nañ dara bu ñu yemoon ci lu ko wax rek ne dina am reddition des comptes te politique lalu ko képp ku sàcc dërëmu sénégalais di nga ko goqi képp ku rey doomu aadama dañ la atte képp koo xam ni yow da ngaa financé pour ñu rey xale yi dinañ la atte donc loolu rek bu amee sax sant nañ ci yàlla sant nañ ci yàlla di wax alhamdulilah loolu rek doy na doy na vraiment ndàmpaay doy na xool bu sedd léegi nag loolu won woo na ci sénégalais xaw ma ba xam comprendre ngeen woo na leen ci yéen peuple sénégalais parce que yombul de gars yi ay milliards lañu ñu sàcc xam ngeen luy milliards ay milliards la ñu sàcc ay empire xaalis lañu am ay këru xaalis lañu am ay magasin wu xaalis lañu ñu am yuñ sàcc sénégalais yi trésor public lañ doon gaare seen oto guddi jël xaalisu Sénégal yu duy ko ci oto yi bu oto yi wàcc ñuy dawal oto bi di mel ni oto mbott ñu duy ko xaalisu sénégalais dem seen yoon trésor public bii bu trésor public buntu trésor public mu doon wax bu yuuxu woon Sénégal tàkk parce que boobaa dina wax ni Macky sàll yàgg na ñëw fii ak ay nitam ñu taxaw duy teg ay belende duy ko xaalisu Sénégal ba oto yi mënul tàkk ñu dem seen yoon kër yi nga xam ni tabax nañ ko Sénégal bu ñu doon mën a yuuxu kon heure bi bu ñu jëloon kër yi rek jaay ko yéen ñëpp ay tekki ku ci nekk yaa ngi yore ay junni junni kër junni junni oto boo doxaanee ab caga sax caga ji am yor oto bu tooy xat yor kër lépp ñu fayal leen donc loolu lépp muy alal gu bëri bu ñu sàcc am nag doole ñu am temps boo xam ne douze ans yoo xam ni liggéey lu ñu sénégalais dañoo liggéey pour seen mbir dëgër ñii ubbi nañ ci ay presse ñii ubbi nañ ci ay journaux ñii doon ay patron presse ñii participer ci ay euh, di liggéey ay patron de presse et cetera cetera ñoom ñu ñëw ba dem ba am empire récupérer presse bi teg à côté am seeni i journaliste am seen i ñu leen di fajal am seen i ñu leen di faral am seen i ñu leen di défendre muy ñaar ñu amay lobby am ay lobby étrangère ay lobby occidentaux yoo xam ne dañuy liggéey ak ñoom ñooñu ñu jox leen ñu yàgg leen jox pétrole bi yàgg leen di jox suñu gaz yàgg leen a jox suñuy zircon yàgg leen a jox suñuy or te ñooñu Ousmane Sonko nee na leen dinaa leen dinaa def li nga xam ni moom mooy renégocier le contrats. donc borom doole yooyu doon nañ liggéey ay lobby étrangère yu am doole donc da nga xam ni kon Sonko woote na guerre ak lobby étrangère yi ak ñi nekk fii ci biir réew mi bu ko peuple Sénégal cette année dañ koy éliminer parce que Sonko. moom kese munul bëgg sénégalais di leen xeexal ñoom kese sénégalais dañ ko siy fekk si parce que xeex bu doy waar la xeex bu yombul la xeex boo xam ne dafa am ay lobby étrangère dafa am ñi nga xam ne ñoo yàgg jël ci suñuy am ay contrat yu ñu leen jox ñuy ñëw di ŋàcc ci suñu pétrole di ŋàcc ci suñu gaz ŋàcc ci suñu zircon ŋàcc ci suñu or yóbbu suñu ressource naturelle te dafa yomboon ci ñoom léegi nag bu ñu waxee déjà bu waxee ne day renégocier les contrat mooy foofu guerre dafay am guerre bu tar mais il faut que peuple sénégalais bi doom comme peuple malien bi peuple peuple malien bi dañoo taxaw Assimi Goïta peuple malien bi lan moo tax jooyu ñu ay ceeb ay kii lan moo tax ñun suñu peuple bi ñu def ñu ay peuple ay peuple lan moo tax ñun suñuy dirigeants yi jàppee ñu ay peuple mala peuple malien bi jooyu ñu ceeb jooyu ñu ko te pourtant yéen a leen gën a lekk mais ñoom ñi ngi reyante ay souveraineté la ñuy wax question de souveraineté nationale la ñuy wax ñu ngi xare Sénégal bu ñu la bëggee ndax ay les bouganeries laa ñuy taxaw non wàññil ceeb bi wàññil courant mais xare xanaa gars yi ay mala lañ dañoo xiif ñoom lekk rek la ñuy gis ko pour yow eh, libération moom mooy lekk ko loolu saaga nday la man nanguma kenn di xeexal di ñu xeexal naan non wàññi leen ceeb bi ceeb bi mooy priorité what the fuck ceeb what the fuck ceeb la mooy ceeb on préfère mourir dans la dignité que de vivre dans la lâcheté lan mooy ceeb ko nafata ceeb ko nafata diwlin yéen kon na fa tey diwlin peuple malien bi gën a sonn te instant yi nekku ñuy waxu waxu réclamer ceebe gi diwlin parce que ñu gore lañ dee dee ci jub dee ci ngor boo demee tey Burkina peuple bi dañ taxaw autour autour de ki nga xam ne mooy Ibrahima euh, Koulibaly di ko défendre di ko protéger benn peuple burkinabé nekkul di réclamer jox leen ñu lu lekk jox leen ñu ceeb jox leen naan ñun on réclame pas du ceeb on réclame suñu droit suñu souveraineté on on réclame suñu indépendance réclame wuñ ceeb meen ñun du ñuy mala yoo xam ne ripaas lu ñu lekk dem tëddi nalaw du ñuy mala réclame wuñ ceeb réclame wuñ dëwlin on réclame suñu souveraineté question de souveraineté la mais du question de ceeb meen ñoom yi la ces merdes là dañ ñoo manqué respect kii Ousmane Sonko di wax waxu souveraineté si tempesti da merde laa génn naa ay waxu ay loo wàññil ceeb bi wàññil du leen what the fuck question de souveraineté la ñu wax Burkina Burkina Faso ñu ngi protégé ki nga xam mooy Ibrahima Traoré du moins Ibrahima Traoré nekkuñu ci ay jooyum ceeb ay jooyum diwlin Mali courant mu fa nekk ñu tey tey lañ gën a bëgg kii di Assimi Goïta question de souveraineté la ñu wax nañu bu ñu fontoo ñoom kon Ousmane Sonko il parlait de question de souveraineté nationale fan la cee wàññee ko sax eh, de dama bëgg ñu ñu dugg ci question bi léegi fan la cee wàññeeko ko yéen ñun ñoo leen gën a cher ceeb sénégalais boo indi fii Canada ne ko jëndal saako ceeb bu jëndee saako ceeb bi de bu ko calculer en CFA day daw ñoo leen gën a cher ceeb foofu Canada moo gën a chair Sénégal ceeb pouf France moo gën a chair Sénégal ceeb pouf Amérique moo gën a cher Sénégal ceeb pouf ngeen di jëndee saaku ceeb cinquante kilos ay vingt cinq mille ak i trente mille kaay fii indil sa trente mille yi ba xam ci am cinquante kilos kaay indil sa cinquante mille yooyu ngay wax noonu léegi saaku ceeb cinquante kilos yaa ngi ko jëndee vingt cinq mille wala vingt deux mille vingt deux mille cinq cent indi ko fii doo ko yóbbu doo fi yóbbu saaku ceeb indi ko fii di nga xam ni yaa gën a yombale foofu bu leen gisee ngeen di jooy ci ay ñenn ñi di jooy ceeb mën na ñii dañoo ils n'ont pas compris Sénégal la ceeb gën a yomb Sénégal la diwlin gën a yomb ñoo leen gën a cher diwlin ay sénégalais ñëw nañ ba tàyyi jóge Sénégal ñëw fii ma ànd ak ñoom di ndugg ji benn benn benn kii butéelu diwlin bu ko jëndee bu ka boo ko calculé aw oh, waaye yéen diwlin bi li lay jar ñoo leen gën a cher diwlin junni yoon ñoo leen gën a cher ceeb junni yoon lépp lu ngeen di jaay foofu ñoo leen ko gën a cher le ñu ngi en France vingt kilo trente trois euros mooy presque vingt deux mille yéen ngeen di jël cinquante kilo cinquante kilos ci ay vingt deux mille vingt trois mille il faut arrêter ça Italie cinq kilos ceeb douze euros donc voilà donc <laughs> là mooy foofu débat bi donc c'est pas pareil on doit parler des salaires mais du ay waxul ay waxul lekk ay waxul ceeb na gars yi liggéey am possibilité lu ñu am salaire yi baax. ñii di ak ñoom bugaanerie yi di exploité nit yi di leen liggéeyloo di leen fay fay gu bon ñoom bugaan ñu tànc leen ñu fay ay taxe fay ay impo pour mun a delloo ay ay ñoom ay ñoom euh, Madiambal Diagne di di fay impôt di fay taxe di participer ñu loolu la foofu la foofu la débat bi war a ñëw bu dee demaa ngeen bëgg bu dee débat ngeen bëgg laa la xam-xam rek ñu wàcc foofu nga xam ni kenn waratu fi wax waxu ceeb mais bu boobaa ay waxu salaire la ñu wax. salaire gu baax bu ñoom buggaan di exploité doomu aadama yi bu ñoom Anta Babacar Ngom di exploité doomu aadama yi di leen liggéeyal comme des lâches te duñ leen fay lu baax duñ duñ duñ leen cotiser impôt duñ leen fayal ay taxes tous duñ ko def ñu nekk ci xetu ginaar gi ginaar yi di leen day di leen doxat koo ci gis mu ngi feebar te Anta Babacar Ngom mi ngi yor otoom bu tooy xat di daw lu ko ñoo ñu ñooy lâche yi. ces gens-là la war a te téye leen ñu fay taxe fay impôt ba pare ñu topp leen ci biir ñu ñu mun a ñu mun a lijjanti seen employé nu ñu leen di toroxale ak nu ñu leen di exploité foofu mooy débat bi bu dee débat rek ngeen soxla ñu ngi toog ci débat bi boo leen ko ñemee rek ñëw leen bu dee nag ay bouganerie la ces conneries la à la bouganerie la ces âneries la loolu foofu moom na ngeen dem fële. bu impôt yi buñ ko fayee rek lépp wàññeeku nañ fay impôt yi nañ fay impôt yi lépp lépp wàññeeku nañ fay impôt donc Ousmane Sonko mi wax ci reddition des comptes di woo peuple bi pour ñu taxaw mais reddition des comptes nag dina am bu magistrature bi ñu raxas magistrature bi ñu raxas magistrature bi voilà ñu raxas magistrature bi voilà ñun ñoo leen gën a cher ceeb foofu au Canada huit kilos ceeb coûte vingt quatre dollars euh, euh, dix mille cinq cent huit kilos ceeb joxal kenn Sénégal dix mille ba xam mu indi la huit kilos ceeb ba xam du la saaga ndey mun <laughs> voilà. ñoo leen gën a cher ceeb fuufa fuufa fuufa fuuf te ceeb bi bàyyu leen ko donc yéen a waroon sax gën a cher ceeb kon am na lu ñuy lu ñu ci liggéey ba seen ceeb xaw a wàññeeku ngeen ci mën a lekk na gars yi fay impôt moo gën di wax waxu ay wàññil ceeb bi na buggaan fay impôt yi na buggaan fay impôt yi mu yoreel Sénégal moo gën wax waxu wàññi ceeb ñun soxlawuñ mu ñu défendre ci wàññi ceeb na nokk ca xaj nañu fay impôt bouganerie de merde là yooyu ça doit cesser mais ñun les protecteurs de ce projet on est là ah bàyyeeguñ de boo leen bëggee jàmm rek jàmm boo leen bëggul jàmm doo leen daj ci Sonko de ñun ñooy ñëw attaqué waat leen rek ba mu tàng jër ñoo leen fu ñu newoon ñu ngi fu ñu doon bax ba léegi ñu ñu ngi fay bax ñu ngi fay ngeer de changé wuñ de ngeen bëgg jàmm ñu nekk ci jàmm ngeen ñi jaay xamari <laughs> ñu fekk leen fi doo leen jege sax Sonko ñun rek ñoo leen di écrasé lem ba mu ron ñu teg leen. donc Ousmane Sonko mi ngi wax ci magistrature bi magistrature bi c'est magistrat véreux bu ñu leen fi jëlee ba raxas leen ba bale leen incha allah dinañ def lu ñu naan reddition de comptes donc ñoom xam nañ li nekk ci magistrature bi xam nañ ko bu baax de façon globale il parle de renégocier les contrats sa waay lii nii peuple yi ñu wër nii ñoom ñëpp ñu ngi kontaan ndox ndeysaan peuple malien bi xiif nañ mar nañ amuñu courant rafle nañ mais ak ñoo bëgg Assimi Goïta xam nga lan la def parce que dafa ñëw di complexe bi jël jël blanc yi jël France sànni leen ca xaj génn CEDEAO taxaw dëggal boppam jëmal boppam ñu naan ay dañ koy embargo faalewu leen peuple bi taxaw ne ko tey lañ lay gën a bëgg tey lañ lay gën a fonk foog embargo CEDEAO lépp lañ yamale ñun Assimi yow lañ wax ñun seen souveraineté national la ñu soxla génn fi euh, français yi mu dóor leen ca xaj peuple bi yëpp kontaan peuple bi yëpp taxaw di jubilé wallahi la azim ñooñu ñoo xam lan mooy souveraineté national kenn def naa yow eh, may ñu ceeb eh, ñu lu ñu lekk yow eh, may ñu ceeb dañu taxaw ñu ñëw jël seen or di xoolal ñëw nangu lépp or bu bu France doon kii ñu ñëw nangu or bi di ko gérer seen bopp loolu mooy fierté kon tey benn peuple un dirigeant bu taxaw ne je vais renégocier les contrats ay contrats yu fi gars yi bàyyi woon yàq réew mi jël suñuy ressources tey la ko tubaab yi je vais renégocier les contrats bu doon un Afrique fière boobu ñëppay tàccu di yuuxu booy gars yi fier ci seen bopp naan damn yee di gis seen bopp di xam ne li souveraineté am na am nañ dirigeant bu am fit bu taxaw ne day renégocier les contrats kenn ñemewu ko. bu dee dëkk yi nga xam ne nag dañoo xam dañoo xam lan mooy lan mooy contrat yi nga xam dañ ko signé ak occidentaux ah, ak oligarchique yi mooy kii euh, entreprise oligarchique yi dëkk bi xam loolu laa la ko dëkk dëkk ma ay dëkku dof yi dëkk yoo xam ne nit yi wéruñu gën xiif lekk rek la ñuy gis bu ñu lekkee ventre plein nègre content non non non je parle pas de ça je parle d'un pays très éveillé mentalement bu taxaw yoo xam ne bu ñu déggee benn dirigeant bu taxaw comme Mali lu mu def ne je vais renégocier les contrats wala je vais foutre l'armée française dehors peuple bi dañuy gën di jubiler loolu boo ko waxoon Burkina je vais foutre l'armée française dehors dañuy gën di jubiler booy burkinabé yi boo boo génnoon tey jii Mali ne je je vais renégocier tous ces contrats là du ko bàyyi ak tubaab bi du ma ko bàyyi ak multinationales yi dañuy gën di jubiler te loolu la seen dirigeant wax démb. loolu taxaw taxaw devant kenn ñi moom ko def loolu ñoom gëjoon nañ ko gis ci ñoom Sankara ay ñoom Lumumba gëjoon nañ ko gis ci ñoom Assimi Goïta lañ ko déggaat ci ñoom euh, euh, Ibrahima Traoré lañ ko déggaat ci président Niger lañ ko déggaat ci Sénégal Ousmane Sonko ko fu njëkk a def kenn amul fit bi Abdoulaye Wade defu ko Abdou Diouf defu ko Macky Sall defu ko kooku loolu fierté sénégalais la war a doon. fierté sénégalais man j' étais fier hier démb laa sentir ni man adhéré naa ci mouvement panafricaniste parce que le discours de Ousmane Sonko a été très panafricain il parle de renégociation il parle de souveraineté nationale il parle de souveraineté alimentaire il parle de l'autodétermination damn sama xol sedd ma ne kii dugg na ci sama monde dugg na ci sama sama environnement j'étais fier démb laa yëg ni kii ma àndal nii c'est un panafricain avec son discours panafricain boo xam ne gën nañ ko dégg ci ñoom Thomas Sankara ci ñoom ay Lumumba ci ñoom ay Ibrahima Traoré ci ñoom Assimi Goïta tey ñu am benn dirigeant bu mel noonu taxaw yor ay discours panafricain képp kuy panafricain war cee yëg sa bopp waxuma na ay xar ay bëy yu xiif naa leen wàññi ceeb mbee naa leen wàññi diwlin mbee mel ni ay mouton de panurge ñun on n'est pas des moutons de panurge nous on quémande pas là pour vivre nous réclamons la souveraineté alimentaire national te démb loolu la Ousmane Sonko euh, wax ay réduction des comptes xeex ay lobby la presse c'est lobby étrangère fait multinationale moo tax panafricain yëpp bu ñu dégloo le discours am naa ay ñu ma xam fii ay panafricain lañ saa yu Ousmane ko defee discours dañ ma a daggal na ma est-ce que mënuñ nga ñu ko traduire parce que dañuy dé euh, Ousmane ko dafa dépassé Sénégal Sénégal lañ ko bëgg a yabee yàlla nag moo def noonu ku nekk fa ngay juddoo dañ lay xeeb yow profet sallallahu alayhi wa sallam fa mu juddoo dañ ko doon xeeb mais ñeneen ñu nekk fa la ñooy gis ni jamaa kii jamaa la jamaa ñu topp ci. saa yu Ousmane Sonko defee discours même wolof dañ koy dagg yónnee ma ko mon frère est-ce que tu peux m'expliquer là il parle de quoi là. nga ne non il est en train de dire qu'il va renégocier les contrats ñu oh mais c'est bien c'est fort c'est comme ça il va faire une reddition des comptes oh c'est formidable mon frère non Ousmane Sonko c'est c'est un messie là on est content de lui on est fier ñoom ñëpp ay góor jigéen mag ndaw ñëpp fier. tey bu ma leen waxoon Sénégal la na nekk débat bi buñ ma ko laajoon dama ne gars yi de nee nañ nañ leen wàññil ceeb diwlin eh, est-ce que vous n'avez pas de mouton là-bas au Sénégal là donc avec tout le discours que le que le gars a eu à faire là vous vous vous vous contentez de de ceeb de wàññi diwlin c'est comme ça kon donc seen seeni politiciens ñoom ñoom débat yëpp ay mooy lii yëpp amul solo wàññi leen ceeb wàññi leen diwlin quoi ñi dañuy xiif ku xiif nga xott àll bi dem bay ku xiif xottil àll bi dem bàyyi kenn terewu ko boo xiifee nga dem def comme sax ñu ma amee noonu def dama nga wut ceeb nga wut diwlin nga wut gerte nga dem nga bàyyi c'est nga am nga def sa récolte te may ñu jàmm quoi ñun souveraineté la ñu wax nan la ñuy def ba souverain ba ba libre ba indépendant ba autonome foofu lañ nekk di xeex nii ku xiif bàyyil àll bi àll baa ngi noonu xotteeku nga ndam maami tool yaa ngi noonu demal nga bàyyi nga wut loolu lekk ñun dépassé nañ loolu on est prêt même xiif ba dee mais euh, dañoo bëgg suñu liberté dañoo bëgg suñu autonomie. donc te loolu lépp kan moo leen ko teg mais Ousmane Sonko tegu leen ko kan moo ko teg mais ngir di fi jóge ñoo leen ko teg est que xam ngeen ni jarul sax ñu ne jarul sax Ousmane di sonn nii naan day jéem a wàññi ceeb may ñu tuuti rek Ousmane. jàppal ñu sàcc yi nangul alal gu ñu sàcc milliards yi toppal gars yi band yi nga xam ne dañoo war a fay Sénégal li nga xam ne moom mooy impôts yi barke alxuraan laa la wax loolu kese ay milliards la man gis naa kenn kuy indi ceeb Sénégal impôt bu ñu ko yónnee 3 milliards 3 milliards 3 milliards impôt billaay wallaay benn nit kese impôt impôt yu mu dajale 3 milliards waxuma laa ñeneen ñi ñaata milliards. mais saa waay boo jëlee fii 3 milliards ci kii kuy indi ceeb jël 3 milliards ci kee di indi dugub jël 3 milliards ci kee di indi diwlin jël 4 milliards ci kee nangam jël nangam ci entreprise entreprise yi nga xam ne ñu ñu entreprise u naar yi jël fii 2 milliards jël fii 3 <laughs> mais saa waay loolu day wàññi ceeb balaa nga maa wàññi si ceeb sax ma ne la récupérer ma lépp lu ma am nga récupérer bu ko récupérer kay saa waay da ngay am ceeb léegi ceeb bi yomb kon kay balaa nga réclamer ceeb nga ne jëlal ma xaalis bi. ñi sàcc xaalis bi dama nga récupérer ma xaalis bi ñi yoreel Sénégal impôt dama nga récupérer ko <laughs> loolu moom mooy xeex bi voilà c'est ce que Erdogan a fait <laughs> balaa ngaa wax dara kay toppal gars yi ci impôt yi ñii ñi ngi yor 3 milliards yi ñu war a jox état bi ñii 8 milliards ñii 7 milliards entreprises occidentaux yeeg multinationales yi ñu ngi foofu installé wu ay milliards yoo xam ne dañ leen éponger seen dette fiscale yi. nga topp ñooñu traqué leen lu ñu yore Sénégal ñu joxe ko mais loolu rek boo ko dajalee boo ko dugalee Sénégal sa lépp naat lépp naat kon nit day xam objectif nit day xam objectif voilà malversation financière yi dérive autoritaire yi banditisme bi lépp ñu lijjanti loolu ba pare lu nga muñoon ci nga toog douze ans muñ ko ci jamonoy Macky Sall yow mënoo ko muñ ci trois mois wala yow Sonko nga bëgg a yëpp laaj leen Bougane moom fu mu nekkoon ci Macky Sall bu mu fi toogee douze ans kañ la ko wax mu wàññi ceeb kañ la ko wax mu wàññi diwlin kon tey ci deux mois la bëgg a wax ni Sonko dafa war a wàññi ceeb bi vite fait ko wàññi diwlin quoi moom pour moom mun nañu nax quoi c'est bouganerie la pour moom mun nañu nax quoi ah non c'est pas l'essentiel yooyu du l'essentiel Bougane moo mun a moom moo mooy mooy orienté politique politique gouvernementale quoi moom Bougane c'est Bougane la nga xam mënul gérer sax tere moom mooy orienté ñun moom moo ñu wax ñun ban politique la ñu war a amee quoi <laughs> mais am nañu réew quoi non am nañu réew nag Bougane nga xam ne moom musul am lu gën a ndaw ci ci nga xam ne Pape Djibril Fall sax am na ko moom mënu ko am lu gën a tuuti lu gën a ndaw ci àdduna yàlla musu ko koo may. Bougane bu mu ko existé ba léegi amul election bu ñëw depuis bu ñu xewalee fii ne léegi da dañ lay dañ lay parrainé bu bu nday Bougane juree Bougane ba léegi musul am parrainage bu ko yaayam juree ci ci bu mu juddoo ci ndeyam ba léegi musul am parrainage kooku lu muy wax un vrai délinquant fiscal un bandit caga bordel daa am lu wax lu gën a ndaw ñoo xam ne démb lañ newoon ci télé yi sax di génn am nañ parrainage bu mu juddoo ci ndeyam ba léegi musul matal parrainage kooku moom moo ñuy dressel wala moom moo ñuy orientel ci nan la ñun sa ban politique lañ soxla. nee ko mu tëgg gàttam Bougane naa kaa la fermer sa sale gueule n'a rien à dire naa kaa gérer ces femmes là ces quarante cinq femmes la et ces et soixante ces soixante dix doom biiral naa kaa les gérer. nekk mu géré déjà ñi muy wër di biiral di biiral doom yi doomu doomu biiral yu yu yi taxawaal am na bu ne Amérique am na bu ne France am na nekk mu lijjanti équipe doomu biiralam ba pare ñun soxlawuñ soxlawuñ benn idée il n'a qu'à gérer ses doomu biiral gel yi mu biiral gauche droite par ci par là en attendant ak ak délinquant la financier la et cetera foncier la mu lijjanti tamit ñu muy liggéeyal ba pare vraiment ay waxu bugaat moom c'est de la merde absolument ñu koy jéem a bëgg a nit yi fii dara bu muy lu mu dugg mu yàqu yab nañ nit yi débat d'idées la Ousmane Sonko woote mais li ngeen di woote ñoo leen ko gën a booy <laughs> boo leen amul idée da ngeen di noppi opposition boo leen amul idée da ngeen noppi boo leen bëggee nag dabaa ñëw leen nag idée yi ngeen jàkkaarloog ñun ñëw leen ngeen jàkkaarloog ñun ñu ñuus leen ci ay idée boo leen jàkkaarloog ñun ñu ñuus leen ci ay idée mais nag bu fekkee ni fen rek ngeen di def wër taxawaalu opposition mën a duul wut ay ay animateur wut ay média menteur manipulateur ngeen di sàkketoo foofu dikki yéen mënu leen ñoo jaaxal jaaxal jeex na ku affronté Macky Sall quarante cinq milliards armement bombe ak bazooka lacrymo liif lu ne fëgg nañ ñu ko marquage à la culotte topp ñu bu dee kooku lañu lem ba mu ron mu daw daxe ko ba tey ji ñimawul sax dëkk Sénégal mu ngi Maroc toog yéen boo leen ne mun ngeen ñoo yëngal boo leen yaakaaree ne am ngeen fitu wala doole bu mun ñu yëngal ñu lem leen ba mu ron billaay wallaay wa yaakaar ne am ngeen potentiel yéen yéen opposition bi nga boo leen boo mun ngeen yëngal fii <laughs> yéen yéen dofu leen sax dem leen laaj ñu seen baay Macky Sall lu ne jiiñ nañu ko fi terroriste ay nit yuy naaw ak ay dëmm ay nooxóor ak lu ne jiiñ nañu ko xoolal tott lañ def di ko raag ba dañ ko tëbal réew mi mi nga Maroc bu mu fi génnee ba léegi ñu mu ut na ñëw <laughs> na ñëw noonu la tëb tëj ak këram moom ak njabootam ba léegi ba léegi tegatuñ tànk senegal ñoo leen gën a xamadi ëpp leen fit dàq leen a wax mënu leen ñoo yëngal on protégera ce projet la Et le peuple est en train de protéger ce projet. Vous allez rendre compte par aw par B. yéen foog ni da ngeen fay nekk di saaga ku leen neex ay presse bi mooy lan lan mooy presse presse bii nga xam dañuy yow wut seeni journal bind ay duul dajale fen fent après yi ne eh, presse protégé protégé waaye ñun ñun lañ war a gën a protégé ñun ñun rappeurs yi ñun rappeurs yi fan ngeen nekk fu rappeur newul fan la presse nekk fu rappeur newul wax leen ban monde fan ngeen dem ci kaw suuf te fekku leen fa rap fan fan fan la presque mu sa wax rap rap daw loolu ñu may caama yéen donc comme nu ko ay chaîne de valeur la nu ko Ousmane Sonko waxee reddition des comptes bale magistrature bi magistrat véreux yi ñu raxas leen def reddition des comptes renégocier les contrats xeex lobby étrangère yi presse bi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw presse bi lobby occidental yi woo peuple bi ci protéger ce projet parce que dañoo war rendre compte ces bandits de grand chemin ces criminels fonciers financier et fiscaux et même crimes de sang doivent répondre à la justice il y aura pour ces criminels donc ba ñëw ba ci incha allah dinañ wàññi dund gi mais lu tax may wax ci dund gi dund gi dañ koy wàññi incha allah il fera tout le nécessaire pour wàññi dund gi mais dama ne ñun sénégalais ñoo war a wax ni nañ ñu jox cër quoi bu ñu kenn politiquee ay dund gu wàññeeku saaga la nit bu liggéeyee ñàkk nga fay ko alalam ak lu ko war. <laughs> loolu la wax wàññil ceeb beeg wàññil diwlin bi ceeb beeg diwlin bi fii la mu sa nekk da ngeen ko yokk ba sa sëkk Sonko bu mu ñëwee da ko fay fekk bu Macky Sall yàqee dund gi yokk dund gi ci 12 ans ci ay fen ak i naxasaay naxasa xandang du Ousmane Sonko mooy mën a lijjanti lool instant yi kees état bi kees xaalis amu ci nañu ko xam gars yi lépp la ñu dóor barki xaadimal Moustapha ce xeex xaalis amul ci kees yi loolu moo tax gaa yi bu ñu ñëwee accéléré gaa yi ci impôt yi Macky Sall bu muy dem trésor public la ubbi raxas fa ba mu set directeur trésor public du génn di ko wax fekkuñu fa un franc déglu leen laa wax trésor public un franc fekkuñu ko fa ay paquetu paquetu liaas lañ ko def yóbbu lépp fekkuñu un franc ci compte yi dara nekku fi dara Macky Sall lépp la yóbbu dafa vider trésor public bi loolu moo tax gars yi bu ñu ñëwee ñu rey seen bopp mi ngi doog am ñu rey seen bopp ci impo yi pour gars yi récupérer impôt ñu yareel Sénégal pour ñu am dara mu ngi noonu dem nañ lebi ji ay eurobond gis ngeen ko bu fi xaalis nekkoon duñ jog sax naan dañuy lebi ji ay eurobond gisuñu dara mu mënoo liggéey ci loxo neen bàyyi luñ leen fi dara lépp la nguuru Macky Sall bi sàcc bàyyi fi tous moo leen boo leen gis ñuy wax yëpp wax laaj leen ñaata lañ fi bàyyi est-ce que mos dégg waa APR naan waa liggéey leen parce que ñun bàyyi nañ fi tant de milliards est que dégg ngeen ko. kon xam ne ni ñoo leen gën a xam ne ñoom bàyyiwuñ fi dara vide nañ compte yëpp dem seen yoon ay vrai délinquant euh, financier criminel financier wax ji lu muy rëy yëpp mosoo dégg benn apériste bu taxaw ne leen liggéeyal bàyyil naa la fi lépp wala liggéeyal bàyyi naa la fi tant de milliards duñ ko def parce que xam nañ ne bàyyi luñ ñu fi tous loolu moo tax ñoom Ousmane ko indi benn politique stratégique mooy topp gars yi pour ñu fay l'impôt yi bu ñu fayee l'impôt yi au moins dina am lu ñuy dolli ak li ñuy eurobond yi ñu dem lebi ji en eurobond loolu yëpp buñ ko dajalee xëy na dinañ mun a alléger euh, yenn affaires yi ci loolu la ñuy wër parce que ay fa nga bu ñu la bàyyilee benn kër goo xam ni bàyyi luñ la fi dara kekk lañ la fi bàyyi mais sa waay bala nga koy installé kay balaa ngaa wax waxu installation kay di nga am loo loo xool loo mën a def pour mën a jënd benn kii bu foo toog foo mën a nangam bàyyi luñ leen fi tus lépp lañ doon léegi nag au lieu ñu woo peuple bi ci débat yi de ñu ñuy woo ci ay bouganerie ak des âneries ku nekk génn. bëgg ñu bëgg a sàkkatoo peuple bi ay non wàññi leen lekk bi wàññi leen naan bi comment nañu expliquer comment dañuy bëgg a sàkkatoo bi jàppee peuple du ñuy nit douze ans Macky Sall sax saaxi réew mi yokk lépp këpp kees gi dem yoonam ñii ñëw deux a ngeen ngeen bu leen wax lii bu leen wax lii wàññi leen ceeb bi wàññi leen yéen ñu wax lu ñu war nu ñu war a politiquer ak lu ñu war a wàññi ak lu ñu warta wàññi hmm? ñu ngi yabaate quoi waaye benn góor nee na bu ma demee am benn <laughs> xam nga Macky benn góor nee na Macky Sall ku koy wuute day gàtt xees ah Diomaye moo gàtt xees ñu toogaat mu ne day xaar deuxième tour toogal xaar deuxième tour te ñu jàmm lu da nga ne góor ana góor gi ana góor gi xanaa daa dee dama ñuus ko góor gi la waxoon ne ku wuutu wutu Sall day gàtt xees <laughs> koo xam ni fen rek bugaan fen rek adduna wi fen wër wër bii relaté fen rek la ko grand boobu di def adduna wi da ko fen ana nga ne góor nee loolu bu góor gi deewul demal nga ñuus ko demal nga ñuus ko parce que fenkat nga xamu góor gee mën a fen nga ne woon Macky Sall benn góor moo ma ne woo kuy remplacer Macky Sall day gàtt xees <laughs> gars yi ne ci ginnaaw tam dof yi di tàcc ah, ah, duulu tooy xat ba suñ jonn yàlla tey ki ki ki falu de gàttul xeesul gàttul xeesul war a lijjanti seen fen yi ku leen ko yekkal ñu ñuy rus defuñu ko ñuy wër di fen rek di wër di fen foog ne mun nañ fooyee Sénégal yi donc mais ces chiens boueux là galeux mënuñoo c'est les chiens boueux galeux qui aboient mënuñu tere le lion va passer le peuple est derrière Ousmane Sonko et le peuple là ce peuple là va protéger ce projet par A ou par B par tous les voies et moyens nous allons protéger ce projet on va réussir ce projet personne boo leen xoolee sax même bouganerie et ses âneries fu ñu ubbi peuple bi dañ leen fekk foofu di saaga seen ndey boo xoolee seen commentaire yi dañuy saaga seen ndey ba seen yaay bu ñu faatoo dañuy dañuy yëngu seen bàmmeel ndax nu ñuy saagaat seen ndey ndax benn doomu doomu biiral bu ñu jur bu toog fii boo xam ne waxi dof lay wax gars yi di saaga ndeyam ba ba seen yaay nekk ci bàmmeel yi di yëngu te xamul lu leen di yëngal ñoo ko fi def nag ñoo fi ñëw jur ab doomu xaraam bàyyi ko fi. muy wax waxi doomi xaram peuple bi attaqué saaga ndayam ba sa yaay di yëngu ci sa bàmmeel ci bàmmeelam yépp ndax yow bu jëloon lu baax bàyyi ko fi kon lii yëpp du ko ci fekk ci bàmmeelam seen yaay mënuñu nalaw seen bàmmeel yi bu ñu tëddee bëgg a noppaliku bàyyi fi ab doomu biiral buy wax waxi dox ñu saaga ndayam ba seen yaay di yëngu seen bàmmeel yi nekkuñu ci jàmm ba ñu ñu dëkkal sax naa leen waaye yow looy yëngu-yëngu nii ñaan ay ah, sama doom de moo nekk fee def fi doomi xaram ma bàyyi woon ko ci àdduna mu ñu ngi saaga ndayam rek moo tax mënumaa toog nii ay moromam di tëdd di noppaliku ci jàmm yow sa yaay ñuy saaga ndayam mu nekk ci bàmmeelam di wëlbatiku di wëlbatiku mel ni ku ku ay melentaan di màtt ndax doomu xaram duñ bàyyi fii duñu nutu dara fan rek duñu sax duñ ci rus seen ndayi deey wala seen bàyyi deey fan ak sos rek la def seen xool yu bon yi moo tax peuple bi duñ leen may jàmm demal moo tax takk fenkat yoo xam ne dañoo mën a fen ñoo dàq tëj seen compte yi rek koo ci gis koo ci dàq ku la dàq dul dàq tëj compte seen compte yi xaw ma nan lañ koy def mais seen i nit rek ñoo ci commenté seen i nit rek boo ubbee fekk ñu bloqué ko comme lëgër tëj fépp la ñu tëj <laughs> non mais ña nekk ci lu bon baaxul nekk ci ay fen baaxul nekk ci ay fen nga tëj sa compte ba mu bolokew kenn du amul fu nit di jaar nga tëj ko wàcce rideau tëj fenêtre tëj buntu sa waay da ngay da am conscience tranquille comme man li ma def ni sama compte yëpp ne yàmbalang ubbeeku fu la neex bindal fu la neex bindal <laughs> parce que dama tëj dama tegu ci lu dëgg ragaluma doomu aadama ak idéologie bu mu mën a indi bu indee violence man la fay fekk maa gën a violent bu indee xam-xam ma jaa ko xam-xam mais ñoom seen commentaire yëpp la ñuy <laughs> ndax dañuy fen ba mu toj kat ñu viré commentaire kenn mu tëj kenn du fi ma damay fen mais kenn du ma kii noonu la ñuy dundee ñoom waa APR boo gis commentaire am da ko tëj ñoom ñëpp a <laughs> moo tax nekk ci dëgg rek a baax nekk ci dëgg da nga am conscience tranquille doo tëj dara buñ bëggee débat di de nga ne leen bisimilah waxtaan ngeen bëgg ñu waxtaan loolu indi reewande kaay ma leen reewande ah Bougane daa mujjee vérifier compte ba de <laughs> ma ña a dugg saaga nañ ndayam ba mu tooy xat xat ne ci laa kontaan ci peuple bi xam ne peuple bi ñooy gor ñooy gar mi moom pour moom da doon da doon bëgg a nax peuple bi da doon waaxu peuple bi naa wooy Sonko ñun loolu yëpp amul importance wàññil ceeb bi peuple bi bu mu bu mu jàppee animaux nga xam ne dafa jàpp peuple dañoo xiif ñoom lekk rek la ñu wër ñoom ñëpp gi ñoo saaga nag ne ko boo ñu boo utiliser te suñ tur dinañ nangantaan sa nday nga naan ñu wàññi tebbeeg wàññi diwlin bi dooma xaj peuple bi ñoo saaga ndayam xam nga loolu seytaane la dafa leen ci ay seytaane quoi non Sonko ñun naw ci ay reddition des comptes bu ngay kii donc di négocier contrat la suñu yoon naw ci wàññil diwlin bi wàññil ceeb bi li mooy ñëw na la ñun du ñuy xar du ñu bëy nangam taanal sa nday gën la ci ay wàññi ceeb ak diwlin na nga nekk nit walla saaga non donc dañuy mujj tëj seen compte yi partout seen ndey yi sax du nekk ci jàmm doom ak xaraam yi du ñu nitu dara ay ñun ñu ngi fi de <laughs> deewaguñ de du xam ngeen ci rëbb dëmm tak tak leen choc di lekk seen di naan seen réglu ndey yi ñu ngi fi ba léegi. ñun ñi doon naan seen muuc seen réglu ndey yi ba léegi ñu ngi fi di muuc boo leen duggee ci suñu projet bi ak yàq dañuy muuc seen directu ndey ñun ñoo leen ko wax. <laughs> voilà man nag maay maay Mollah Morgun te wax naa leen ko bokkuma Pastef awma carte Pastef musuma toog ci réunion Pastef musu bokkuma Pastef man Mollah Morgun je suis libre ma kenn ma benn loi benn doomu aadama tënkuma lu ma fii lay wax lu ma fii laay def and I don't give a fuck about the rest lay laay te peuple bi rek laay xeexal man man sama benn parti la am c'est le peuple sénégalais le peuple peuple sénégalais ku ko laal gis ma ku ko jege gis ma ku koy jéem a bund xatal ma taxaw le peuple sénégalais moo ma ñor kese mooy sama lépp mooy sama dund mooy sama dee point waaye projet bii moom peuple bi gis ci seen bopp man lu peuple bi bëgg laa bëgg peuple bi ñoo xool projet Ousmane Sonko Jomaay le peuple bi peuple bi ne projet bii moo leen doy Sonko moo leen doy Jomaay moo leen doy man leen lool moo leen doy ñoo man leen ànd naa ci yéen <laughs> lu lu lu doon def neex na ndeyam lu ngeen bëgg rek man maa ngi ci peuple lu ngeen bëgg ñu ne ñun sonko lu ñu bëgg jomaay lu ñu bëgg loo leen bëgg projet bi lañ bëgg défendre ma ñëw ànd ak ñoom jeex na rek <laughs> loolu moo ma boole ñoom de loolu rek moo ma boole ñoom man peuple bi laay topp lu ñu bëgg laa bëgg lu ñu bañ ma bañ waaw ñoom seen jàmm rek laay dox ci seen jàmm ak seen wér lu dul peuple bi ñoruma moo tax noonu la ko Ousmane Sonko comprendre moo ne mooy bu bu dee des comptes à rendre la peuple bi la koy rendre parce que peuple bi moo souverain bu ñu waxee peuple nag am na dégg naa leen dul naa li si xanaa ñun bokkuñu ci peuple bi déedéet vous êtes les lâches du peuple les lâches les lâches du peuple bokk ci peuple bi ay workatu peuple bi ngeen workat peuple dafa am dafa am ay workat yoo xam ni peuple mooy peuple mais peuple du ay nit population ak peuple bokkul population nombre la mooy population peuple mooy idéologie bëgg-bëgg bu ñu am damandoo ñu ne peuple c'est peuple ay nit yu booloo bokk benn gis-gis bokk benn bëgg-bëgg ñooñu la ñu wooyee peuple mais bu fekkee di en nombre la population lañ koy wax moo tax ñu le pouvoir au peuple wax ñu le pouvoir aux population le pouvoir au peuple est sans délai le peuple donc yéen bokk leen ci peuple ci population bi ngeen bokk vous êtes des traîtres de la république ay workat ngeen ay corrompu ngeen ay merde ngeen vous la presse corrompue les médias menteurs manipulateurs vous faites pas partie du peuple vous êtes des lâches des traîtres de la république mais le peuple est toujours là digne intègre souverain di protégé ce projet ngeen ko xamee noonu par le peuple et pour le peuple digne intègre debout vigilant suñu réew mi di ngeen ñu may jàmm ñu liggéey ko voilà doo leen nitu dara ay Bougane ak ay Anta Babacar Ngom Ndingler sa baay sàcc fi suufu suufu ndengeleer bi hmm? ay paa yoo xam ni màgget seen maamaate maam bàyyi leen suuf si nga mu sa bàyyi dem kompaloo ak Macky Sall dem nangu suufu ay kilifa ay nangu suufu ay village yu lëmb jaxase village ya ñëw indi a ñëw indi police corrompre leen jox leen deux millions bu di jéem a ay paa ñu lànk yow amoo dara lay wax yow. dama nga lijjanti say employé chaque jour ñu ngi ñëw ci man di jooytu. chaque jour say employé yi ñëw ci man di jooytu ñu ngi liggéey comme mbaam xuux xetu ginaar gi xasaw na ci koñ yu yu ko yu ko installé yaa ngi leen di liggéey loolu di leen man bu ma yónnee di ngeen li nga leen di wéef sax ay deux mille cinq cent ay mille cinq cent journalier non mais c'est lâche c'est lâche dama leen ngeen lijjanti seen employé yi Anta Babacar Ngom dama nga lijjanti sa employé te nga wax sa baay suuf si muy sàcc dégg nga voilà di maltraiter seen i employé toroxal leen fanal leen doo leen sax cotiser taxe ay impôt yéen war ngeen a wax ci réew donc les comme ni ma leen ko waxee on va continuer à protéger ce projet nañu ko jaral nañu ko jaral gis ngeen nu may protéger projet bii mu jaral ma ko nu ko raw ngeen war a protéger projet bi parce que projet bi projet buy am ndam la projet bi dara mënu ko téye et on n'arrête pas la maire avec ses bras projet bi dafa war a am ay protecteur dafa war am ay protecteur projet bi dafa war a am ñu taxaw gar ci seen bakkan le don de soi pour la patrie suicide individuel pour une résurrection collective daf leen ko war a jaral nim ma ko jaralee la leen war a jaral lu ko raw lu dul patriotisme animé wu ma lu dul l'autodétermination animé wu gis nga nu ma ciy garee sama bakkan te sénégalais laa ni yéen bu ma neexoon def ni yéen ñenn ñi toog muy toog di gérer samay mbir mun naa ko du ma dugal sama bopp ci danger duma ma dugal sama bopp ci dara di lekk ba suur di naan ba mandi manqué wu tus di jël sama maan di ko solo di ci defaru ba naaj jekk taaru yor samay toog yu tooy di dawal di naaw di ñëw vacances di xaj di dóor je l'ai pas fait je l'ai pas fait je peux je pouvais le faire j'ai les possibilité et les capacités de la faire mais rus naa ko def bu dee damay romb ay doomu aadama yoo xam ni dañ ci waroon génn ñu sàcc leen rus naa di dund di gis ay nit yoo xam ni injustice lañ leen teg rus naa di dund nekk sama jàmm di gis samay mbokki mbaar di souffrir en silence loolu moo tax ma taxaw tey di jaayante ngir ñu respecter sama peuple ngir ñu jox cër sama peuple mënuñu am dirigeant yu gën Sonko Diomaye billaahi bu leen sàgganee amul benn doomu aadama bu nekk ci seen kanam boo xam ne moo gën a souverain sonko moo gën a digne sonko moo gën a jub sonko amul nañ ma kenn joxoñal kenn sénégalais yi loolu lañ xam moo tax ñu fal à deux cent pour cent jomaay à travers sonko moo ko njëkk am moo ko njëkk a am Ablaye Wade bu mu jógee bëgg a imposer doomam ci lañ taal dëkk bi doom ba daw Ablaye Wade seey Macky Sall bu muy ñëw di wax waxu troisième mandat la doomu aadama yi jóg na ko gar bakkan tey dee rek mu daw Sonko moo taxaw fii ñu ne ko doo jàll mu ne jomaay ñëpp daw dem jomaay amul benn politicien ci kaw suuf bu doomu di ab jigéen jur bu gën Sonko amul bu ko gën a bugg réew amul bu ko gën a jub amul bu ko gën a pasté pasteefu amul bu ko gën a souverain amul amul de donc moo tax ñun ñu teg ci sañu bakkan du ñu weccee koo mukk Sonko ay ay ay ay bugaan du ñu weccee koo mukk Sonko ak cagat yi di ay Anta Babacar Ngom du ñu weccee koo mukk Sonko ak politicien kat ku ti mbaw yi di taxawaalu mukk mukk ku yaakaar ne mun ngaa ñëw dal ci Sonko ba dem te sa ndigg neewul kabaj <laughs> xoolal xoolal luñ la waxati saaga ñu xoolal ñëwal ña ko doon jéem a def démb ak tey saaga nañ seen ndey ba ñu tooy xat na kenn ñëw wala doy góor rek ñëw leen yéen opposition bi ñëw leen ngeen fekk ñu fi loo leen jaay rek tey mu làmb bu dee reewande ñoo leen ko ëpp ëppale bu dee sañ-sañ ñoo leen ko ëppale bu dee xamadi ñoo leen ko ëppale bu dee débat di dee ñoo leen ko ëppale fépp lañ leen mëne fépp fépp fépp di wax Sonko l'Afrique est fière de lui l'Afrique Afrique kontaan nañ ci Sonko billaay wallaay wa taalaay Sonko discours am la africain yëpp di réclamer démb maa ngi wax ak benn Camerounais loolu la ma wax quoi mu ne ma ñun amuñu chance ma ne ko lu tax mun ne ma yàlla mayuñu ku mel ni Sonko xanaa ko yow waa fan mu ne ma je suis Camerounais quoi mu ne ma ñun amuñu chance. ma ne ko ah mu ne ma woy yéen dangeen war a jaf jafandu ci seen waa ji yàlla ñi muy may lii bëriwul un Camerounais dafa nu moo doon installé quoi dama da ngeen war a jafandu seen waa ji am na dëkk yoo xam bu leen yàlla mayoon Sonko <laughs> Sonko dina mel ni yàlla foofu dina fa mel ni yàlla dina fa mel ni yàlla dina dox gaa yi di tëdd muy dox seen kaw nii di dox seen kaw day mel ni Mali ñoom noonu lañ mel ak Assimi Goïta bakkan lañ ko teg bakkan <laughs> ku laal Assimi ñaata ñaata tentative lañ jéem ci Assimi Goïta ku ko jéem dee tubaab bi fu ne jaaree nañ fa Assimi Goïta ak lobby fekk na ñuy julli ñu bugg ko jam mu fu mu dem ñuy jéem a téye rek fa dara taxaw chaque jour malien dee ndax Assimi ku laal Assimi dat ñu taxaw gar ci seen bakkan ne kii mooy suñu sauveur fu ñu woo bëgg nañ. buñ koy buñ leen di embargo maliens yi ñoo ñëw taxaw bu leen neexoon ñu taw ne asimi yow buñ ñu embargo duñ am lu ñu lekk duñ am lu ñu naan duñ am ceeb duñ am diwlin déedéet dañ ne asimi on est content combat bu ne am na sacrifice demal vas-y jusqu'au fond asimi goyta xool ginnaaw gis peuple di yuuxu naan ko souveraineté souveraineté souveraineté nous voulons la liberté am bas l'armée française et cetera et cetera Assimi di gën a am fit di gën a taxaw ànd ak gars yi ñu rajaxe rebelle yi récupérer euh, euh, nord bi ak salaire ba ci kaw ñoom ñoo may fit Burkina tëll Burkina taxaw ñoom tam taxaw Ibrahima Traoré may fit Burkina Burkina jóg teg ko ci Ibrahima Traoré ñëw génn fa armée française bi rajaxe lépp ambassade ba tëj lépp nokk ca xaaj tëj fépp ñuy wax waxu souveraineté Burkina may envie même envie boobu envie patriotique vent boobu noonu mu mu jox ko ñi nga xam ñooy Niger Niger tam teg teg ko ci mu des Sénégal yàlla may leen Ousmane Sonko ñu ñëw am souveraineté boobu xeex ba jël ko am ay bitox xaraam ak taxawaalukat bëgg a ñëw bëgg a ñëw naan dañuy infiltre que dañuy jéem a yàq hey dama ne lu malien def ba am malien gënuñu ci ndey gënuñu ci bàyyi lu burkinabé yi def lu Niger yi nigérien yi def loolu la Sénégal di def noonu la ñuy protéger ñun mooy nord du Mali Kigal Tombouctou Gao mooy nord du Mali lu euh, euh, courant bi jógee Mali dugg Burkina dugg Niger moo duggaat Sénégal mais fii arme militaire yi dugguñu militaire yi dugguñu Sonko moo ñëw mooy militaire de la rue un de la rue soldaaru mbedd la ñun yàlla loolu la ñu yàlla may soldaaru mbedd ñu ay soldaar en uniforme lañ Sonko c'est un soldaaru mbedd donc on va protéger ce projet et j'appelle tout le peuple sénégalais à protéger ce projet la boo leen ko protéger doo leen am gàcce boo leen ko protéger doo leen doo leen rus boo leen ko protéger di ngeen sigi boo leen ko protéger dina leen sagal ñu ngi doog a dégg président boo xam ni premier ministre boo xam ne nee na bu duggee ci oto ak nu oto bi tooy tooy tooy nee na moom nii lay def di xool vitre bi quoi saa yi rombee Sénégal daal cay ñii luñ ma sas caa tat tat tat cay ñii luñ ma dénk <laughs> nga xam ni kooku jàmbaar la nga xam ni kooku yéenam rafet na nga xam ni kii <laughs> bokkul ak Macky Sall bu ñuy tëjal nag waaw waaw waaw muy mbëkk gaay foofu foofu mbëkk gaay taxaw ak jàqam lu rëy taat yi mu funki mu mel ni ku ñu uh, uh, mbott bu bu naan diwlin ah! yooyu yëpp jeex na fi léegi lépp <laughs> loolu yëpp jeex na léegi premier ministre buy xool nii vitres président buy xool gars yi nii eh, ay gars ñu ngi jaay fii caaf fa léegi caa ta ta xoolal buntu Pikine nu mu jaxasooyee non di dem naan ebe nañ la jënd buntu Pikine léegi mu kii nañ def lii nañ def naa président yooyu lañ am léegi ñu ay mbëfër yu mbëfër seen taar yi rëy ay du sukka biir yi ngànta yoo xam ne mel na ku biir ku ëmb ñetti doom ñetti seex taxaw taxaw ñu wër waaw yooyu jeex na ñu lay nuyu mel ni ay kuy nuyu yàlla seen ñoom ñëpp seen xanaa xamu leen waa APR gisu leen ñoom ñëpp seen liggéey yàqu nii la doon nuyoo Macky Sall nii comme ñu gis yàlla moo tax Amadou Julde Bayal Ba giseen nu ndigali yàqu lu Macky la ko yàq ndax sëgg koo ci gis Omar Sow jël doomam tuddeewu ko bàyyi tuddeewu ko yaay mu tuddee ko euh, Macky Sall Omar Sow da bàyyi seen digg ñoom ñëpp la seen digg li yàqu ku ci toog ak Macky Sall ñu ay na fa tayoo jaam lañ jaam vrai jaam yu xasaw xunu mos ngeen gis kuy nuyoo Sonko jomaay naan ko nii mos nga jeex na ci jamonoy Macky amatuñ benn complexe ñun yéen <laughs> Sonko Sonko daa am complexe tubaab yi bërki démb rek Macky Sall la woon France Alizé di naan sàngara bërki démb bu mu fi jógee ba léegi Macky Sall Macky Sall du dem toogi xanaa Macky Sall moom amul i jabara non Macky Sall man dama yërëm waa ji quoi Macky Sall la ngi ci monde bi di wëndaalu ak taatam yu rëy bat lap batar batar batar batar batar batar lappi lappi batar batar topp président français bi ma nga woon barki démb di naan sàngara eh, Élysée wëndaalu taxawaala ñu ko yónni rek <laughs> oh, mais pas boobu moo ñàkk ndayam fayda Macron di yónni ndayam rek demal ma fii muy daw non te mun na jur Macron muy daw demal ko Amérique demal ma fii kaay nangal sàngara bi te demal ma fee Macky Sall batar batar batar batar batar batar lappe lappe nga xam ni gars yi dañoo ragal tubaab ragal tubaab ragal tubaab ba ambassadeur tubaab président ko war a gis <laughs> ma ne ñii ambassadeur tubaab président ko war gis mais ñii ñoo ñu yàpp quoi te ambassadeur nit bu ñuul du gis président bu tubaab <laughs> xam nga ñi ay doomi xaram lañ waa APR ay véritable doomi xaram lañ mais dañuy xam ni buumu jaam bi këppét lañ ko def këppét buumu jaam bi lañ ne këppét mu dagg kon na fa tanday tubaab bu dee ñun ñun ñun suñu ambassadeurs yi duñ gis président duñ gis premier ministre duñu gis tous ñoom bu ñëwee fii dañu yàpp ndayam ba ñun dañoo war a gis suñu président bi ko ay eh waay <laughs> ñun ñun bu ñu buggee dem seen dëkk dinañ dajale dix mille feuilles dix mille ay mbir pour mun a am seen visa suñu passeport tekkewul sarar ci seen kanam ñoom bu buñ benn këyit ñu juddoo rek am passeport bi dinañ dañuy dugg Sénégal lu mu la neex di génn di dem fu leen neex di njaaba njale ñun balaa ñoo ñëw laa la wax suñu alal gi dinañ ko lekk ñu waxati dara seen ambassadeurs yi ñoom ñoom suñu suñu président la war a gis ñun suñu ambassadeurs yi nekk ci seen dëkk yi duñu gis sax golo golo golo golo sax ko gis léegi Ousmane Sonko nga xam ne amul benn complexe ñëw dagg buumu jaam boobu noonu jaam yi nekk affaire naan non non non non c'est pas normal Ousmane warul gis ambassadeur son na fatta nday ambassadeur warul gis ambassadeur Ousmane dafa war a gisi dafa war a gisi non eh, eh, loolu président Diomaye moo war a recevoir ambassadeur ñoo bañ benn président du dem benn ambassadeur tubaab du dem ci kanamu Diomaye duñu mo duñ seen morom yéen complexe yu bon yi ngeen doon moo def focus yi takk ngeen ñu buum jaam takk ngeen bu ñu dëgër ay mën jox ñu tubaab yi c'est fini ça c'est fini amuñu benn complexe ci ambassadeur consul benn amuñu ko ci yàpp ngeen ñu yéen Sonko sax dafa war bàyyi sax di recevoir ambassadeur dem jox leen ministère des affaires étrangères ne dem leen ministère des affaires étrangères xam ngeen ni kon bu doon desee ci ab Macky Sall kese du mës a tëj ambassade tubaab yi <laughs> Assimi Goïta di tëj ay ambassade France bi Ibrahima Traoré di tëj ambassade France bi di leen dàq ci biti ca xat Niger ñuy tëj ambassade France di leen dàq ca xat Sénégal ñu ne ambassadeur tubaab yi ñoom président bi lañ war a gis même premier ministre bi non non non amul droit bi président war a gis <laughs> complexe boobu jeex na de fii ay tëg niggas a fi nekk léegi amuñu benn complexe ci blanc noir jaune marron proud to be black Babylon bomba clack shout out my black wondaalu is a clack proud to black man bii lañu gëm bii amuñu benn complexe beneen on est tous nés égaux bu fekkee ñun suñu ambassadeur mënul gis fii ci France mënul dem gisante ak Macron suñu ambassadeur fii mënul gis fii ki nga xam ne moom mooy Trudeau ñoom seen ambassadeur du ñu gis sañu président ñun ñoo ko wax yow complexe yi maa def fëkkës yi kon yooyu jeex na fii buumu gàcce bi buumu gàcce bi jaam gi dañ dagg ak complexe APR yi bi dox xaraam yi yeah man black is beautiful proud to be black comme sa bopp waxuma dara ab morsob sagar loolu wax naa ci bu yàgg morsob sagar googu noonu xonk ñu ay non jomaay moo ci dox ngeen jëmbat waaye maanaam ma ne leen soog Sonko naan tala booy yow Sonko Sonko naan tala de <laughs> ñoom xamuñu ni Sonko dara safu ko dara safu ko. barka rasulullah da leen di kaañoo da leen di kaañoo wala leen di xoolal da ne bi tapis rouge ah moom nag day dégg Sonko nag xoolal dafa am jàpp roychen nee naa leen Sonko booy la du président bu ñu fatt ay noppam tagal ko takkal ko ay yeer di ko déglu loolu bëgg a dégg di ko fen déedéet. Sonko kenn amul fi du takkal ko EM Sonko TikTok ak fépp lay dugg fépp lay dugg mu ngi 10 000 compte am day dugg rek ci TikTok yi taxaw di xam na lu gars yi di wax rek Sonko dara dara dara rëccu ko Sénégal renseignement généraux la Sonko renseignement généraux la dara rëccu ko Sénégal fépp pur produit mbedd la pur produit sénégalais la amul benn complexe nit bu weex wala jàngum nasaraan lépp lay suivre lépp. mu ngi TikTok mi ngi Viber mi ngi WhatsApp mi ngi Instagram mi ngi buuju lépp lay buuju taxaw toog def tekk nag nga xam lépp loo ko laal mu wax la loo ko laal laaj leen bu mu duggee kaso ba génn gars yi naan ko noo Sonko xamu leen hey naan lépp ci conférence dégg naa lépp <laughs> dégg naa ñu naan dañ may xamal information yu mujj yéen xanaa xamuñu nii naa nangam nag dóor gars yëpp xam leen Sonko il est très informé très informé laaj leen ñi nga xam ni dañuy liggéey ak moom di gisanteeg benn waa APR ñaata ñaata ñaata directeur général ñaari directeur général bu ko ko jaar seen tour de ànd nañ ñoom ànd nañ ak ay directeur APR ancien directeur APR Sonko woo leen ne ko booyoo waxuma la nga bàyyi ànd ak kii kooku nag ah ah mu ne ko si si si si bul ma fen de démb ànd nga ak tel ah, ah, waxuma la nga bàyyi ànd ak ko directeur général bi tiit ah, waxuma la nga bàyyi ànd ak waa APR yi waxuma la nga bàyyi di di jege ak ñoom ñaari directeur général il est très informé Sonko il est superbement informé bu ngaa ko de naan di télé lépp la xam lépp lépp lay suivre lépp lépp lay suivre moo tax pour nga nax ko c'est tout un problème moo tax kenn amul fit di ñëw comme Macky Sall yi ñu doon takkal ay rek yooyu naan dañuy di leen di ko fowee ci ay information Sonko kenn amul fitam lépp la la xam il suit lépp luy dox bàyyiwul dara. ma ne mooy waa barki démb gars yi bu ñu demee fële buntu dig naan dañuy bañ a mooy waa APR yi rek baa jaxase bu ñu ko jegee dañuy teg ñun baa jaxase ñun xaar. quatrième damit dam damit lacrymogène dañoo jël premier damit ne bii dafa saf deuxième ñu ne bii dafa saf troisième quatrième bi quatrième damit bi lañ leen sànni yu suñu naaw top laayi lay la laa waa ji yoroon caméra ba sax daa seey kay foofu cop seey foofu seex benn benn damitul quatrième damitu lacrymogène mi ngi mel ne lacrymogène baa ngi nii nga damm ko lacrymogène baa ngi nii nga damm ko quatre parties tak tak tak deux trois yëpp day saf quatrième bi nga tumb ki yoroon caméra ba nag waxtu wuy sama dayooy ñu ne wéy ayooy ñi jaar fooy bu bu foofu c'est wet fet wet gi xeer jógul bal tàkkul suuf yëngul donc <laughs> moo salig de ak daf da mun a kaañoo nag dama mun a kaañoo <laughs> faalewu leen c'est-à-dire gars ñoom dañuy toog ci média yi foog xoolal di wax sérieusement foog ne ñi ngi atteindre Sonko non mais Sana de <laughs> di wax di daya ko dox tax <laughs> Sana de soo ko toog di kaay <laughs> euh, dafa dafa naqaree laal dafa naqaree jekku parce que yow li nga def sérieux di toog di toog ci plateau yi di day di dox di wër di xoolal di ko seere di nag tay bi di génn wuy noo kay waxal xool ne toog de boo pare wala pare nga waxoo fi duul on avance ay ci gars nga doo ko comprendre ni xoolal sa day yéeg yi nga doon def ak di naj day yéeg di ñodde ko xoolal xoolal peine perdue ka ngay waxal faalewul la kaañ la kaañ la la jàppee kaañ golo la la jàppee grimace golo yi nga yelloon grimace golo yi nga yelloon rek boo paree moom day dem kooku mooy Sonko lépp la xam dafa def teg toog noppi <laughs> bu ñu leen sànnee dammitu lakk mosal ñun ñëpp a ba nii ñëw aatuñu ba nii pare nañ ci baa jaxase de <laughs> baa jaxase ak imam imam a duul boobu ñoom ñëpp a ngi ci kaso bi pare nañ ca de lem nañ ko ba mu ron ñoom ñëpp a ngi seen salon yi di commenté waa APR yi <laughs> gisutoo ci kenn ku <laughs> te de desutu lacrymogène yi nag benn lañ ci jël dem tamit desutu lacrymogène yu Macky Sall ya lañ leen sànnil benn xaaj xaaj xaajaat sama tension bi sama AVC e bi oui ñoom c'est ba suñu jonn yàlla de kenn ci ñoom taxawul ne day dajaloo waat pour xeex tàppet baaxut a àndal de dégg naa dañ doon waaxu di kajjante sax kii daanu ci kaw kii ñu kii kii tëb daanu mbëkk ñoom ñëpp a seey ba ba jaxase yi croupir kasoom ba trois mois doo gis benn waa APR bu dajaloo <laughs> duñ ko jarul leen ko rek nokki lacrymoso jarul na leen ko de seen loxo yee nooy ay góor jigéen seen loxo nooy sàcc rek la ñu xam sàcc ak fen sàcc ak fen sàcc ak fen rek seen dund yëpp ñoom ñëpp a nooy la koo ci ne xee bu koo ci poñe ne xee damay muut lay def muut seen parti ba ñu doon xeex ñëpp bokkuñu ci ñoom ay mooy ay mbër yu ñu doon indi ñuy sànnante ay seize ay nangam mais APR bu taxaw nii nekk góor nii taxaw ne la man la waa APR <laughs> amul ñu ay góor jigéen kese la góor jigéen seen loxo yaa nga nooy sàcc rek la ñu mën seen bakkan ya gand paxu bakkan ya taxaw xamuñu lu air bu neex climatiseur dugg seen oto yu ñu sàcc climatiser ko yor alal gi koo ci ne tey rek ma mu ne ah affaire <laughs> ay vrai góor jigéen lañ vrai xamuñu ñàkk xamuñu mekk xamuñu street bi xamuñu mbedd xamuñu daw xamuñu xamuñu buuju kaba xamuñu sànni xamuñu encaissé xamuñu xamuñu dara moo tax cocktail tox sax day ëpp ci ñoom ñoom benn dammitu lacrim moo ñu seey ñooñu bu ñu leen tàmmaloon cocktail <laughs> ba yëngal cocktail bi bu am puuf tey xam xam ñooñu xamuñu cocktail kaa la ñu formé leen booy góor jigéen APR yi kaa la ñu formé leen avant tout foog ñu dëgëral seen loxo yi nag seen loxo yi lañuy ñuy dëgër ba mu dëgër këcc loxo yi nooy yi da ngeen di may deret da ngeen di may deret dèjà parce que da ngeen bëri deret sàcc ngeen da ngeen di da ngeen di may deret ba seen loxo yi wow ki nga xam nga loxo bi amul deret loxo bu woo koŋŋ nga nii mu ngi takk lay def boo dee boo dóor da ngay xam nga léegi kii lii loxo góor yàlla la boo ko naa pap pap pap mooy bu jigéen bi bu ngeen yor boo leen tàcc sax comme day bëri te day maye deret ba deret bi nga xam day woo koŋŋ dëgër këj nga xool yii nga xam ne yii yaa xam ne kii dafa dëgër waaw mu nga xam ne boo téye xeer bi xeer boo ko téye deret du ko téye xeer yàq xeer yàpp la xam xeer yàpp la xam yàpp xeer du deret day bondé xeer yàpp la xam ba nga dee ko nii kak ba xeer bi dëgër nga xam ni nga ko def bloqué ko ba mu bloqué nga xam du am air nii doo dóoree nii nii boo sànni non nii ngay sànni nii wicca buuf ci kaw la jëm nga xam du yem fii ci kaw la jëm cocktail yi nag dina leen ko jàngal tamit boo boo leen paree rek parce que ay góor jigéen ngeen yéen waa affaire boo leen paree xeex ngeen ñëw ñu jàngal leen nu ñuy defaree cocktail ak dañ lay téye cocktail sinon day tàkk seen loxo yi parce que boo ko téye buum boobu noonu ngay lonk dóor ci almet bi wala briquet bi tàkk mu tàkk balaa amoo dugg di laal essence bu fekk war na de yegg sino day tàkk seen kaw yéen ñëpp a lakk donc boo leen paree nag pour vraiment vraiment pour mun a opposé wu ñëw leen ñu jàngal la nu ñuy defaree cocktail nu ñuy sànnee cocktail nu ñuy foree xeer nan la ñuy defee réplique défensif nan la ñuy arriéré nan la ñuy songee lépp lañ leen di jàngal parce que ñun def nañ ko ay ati at depuis deux mille vingt et un ba léegi ñu ngi koy def deux mille vingt def nañ deux mille vingt deux ba deux mille vingt quatre ngeen jox ñu réew mi daw kon bu ñu dëgërul woon bopp <laughs> loolu la ñu jox réew mi deux mille vingt et un lañ ko déclenché ñun ak yéen ngeen rey tak tak tak tak ñu song. 2021 ba 2022 ñu leen di ñuus 2022 ba ngeen indi armement milliards ñu ndokk leen ba ngeen taw cocktail molotov seen kër yi ngeen tiit naan ko euh, kii kii la non kii euh, kii force nucléaire force bombe force attaque force vëg vëg ba deux mille vingt quatre ngeen seey seen njiit taw ne kii booy dañ may rey indi naa lu ne mais dañ may rey kon xool ñun ba léegi ñuy foofu di ngeen booy doon cocktail molotov booy doon dem di jaay seen bakkan ñoo ñii fi ba léegi ñii fi ba léegi jógee guñ fi voilà da la wax di leen wax ne xam nañ xeex bi xam nañ retrait défensif bi xam nañ nu ñuy xam nañ koñ ba koñ gox ba gox xam nañ combat nocturne xam ngeen combat nocturne booy waa yoof yi di def combat nocturne yoof du ñu xeex bëccëg stratégie combat nocturne la def tasaaroo bu bëf bëf ci koñ yi mooy gox ba gox combat nocturne cocktail molotov ñu ñu ñu embuscade embuscade ba ci géej gi bu max ci géej gi tëmb donc ñun ñun ñu donc yéen ci yéen lañ jàngee xeex waa APR ñun ci yéen lañ jàngee xeex léegi ñun ay ñun ay demkatu geer lañ boo leen boo saa yoo leen décidé rek fekk ñu ci terrain bi ñun dañ leen fekk si saa yoo ko décidé mais comme jamono ji moom opposition salon ngeen opposition xaju balkon toog leen noonu di xaju balcon bind salon <laughs> du yéen yéen a leen def ay séminaire rek ay conférence lu leen ko teree def daf leen ay demande daf leen demande ñu may leen kenn du leen kii daf leen demande conférence bu Sonko def mais doo leen génn seen leader yi duñ génn ñu def conférence ngeen def conférence ñu may leen ñëw leen ñun moom ñu ngi fi di protéger projet bi waaw di protéger projet bi waaw ñun bëgguñu APR tas de parce que dañoo bëgg ñam dañoo bugguñu ñam bugguñu APR <laughs> tas dañoo bëgg ñam waaye dañu war a ñam ñoom ñoo fi bàyyi 45 milliards armement yi ñoom ñoo ko fi bàyyi ñoom ñoo fi bàyyi lacrymo yi il faut ñoom ñu ñam ah <laughs> opposition Pape Mbaye moom non non non non bii moom di saful dara ñu leen di xaar nag ah. da ngeen génn salon yi nag APR génn leen salon yi tuuti ak seen opposition bi génn leen salon yi xaju balcon yi. voilà conférence de presse yi non non non génn leen ñu leen mbedd mi mbedd mi mooy fay fii mbedday fay mbedday fay waaw fii mbedday fay bàyyi. mbir day fay loolu la de génn ci street bi jaayante ko hard knock life wërngalu mu jar ko bu leen peuple bi jaral la ne ko ñëw leen donc comme ni ko soo ko waxee ay débat d'idées ñun ragoluñ ko ay débat d'idées ku ñëw pour débat d'idées ñu débat yow débat d'idées ku ñëw reewande xamadi ñu jaay la ñoo la gën a ñun ay booy mbedd lañ kon nag ñaar yooyu tamit loolu kese la kuy jaay reewande di nga fi fekk kuy jaay yaru débat d'idées ñu def débat mais toog di fenal ay nit ngeen ne ay am presse bi moom am nañ droit di fenal ku leen neex di wax lu leen neex di sosalaate di fenalaate ke tiiñalaate après bi la fi bëgg a jege kon kay Sonko waxul presse bi laa bëgg a jël fenkatu presse bi Babacar Fall bu TFM sax bu RFM mais wane na carrément ne ay fenkat lañ parce que moom nee na Sonko presse bi la fi bëgg a jëlee mais Sonko <laughs> qui se sent morveux se mouche qui se sent morveux se mouche Sonko daf ne presse fenkat bi presse média menteur bi média soskat yi ñiy taxaw ci presse bi di yàq deru doomu aadama yi ñooñu ne kenn du leen topp parce que ay journaliste lañ ñooñu di leen duñ la duñ ko bàyyee kenn dootuñ ko bàyyeeti presse menteur média menteur bi di fenalaate ko sosalaate mais kay kooku wax na. kooku waxul presse bi daf ne presse bi fenkat yi média menteur manipulateur yi ak sosalaate ka tiiñalaate ka taqalaate ak bind lu la neex loolu jeex na Babacar Fall bu te RFM ñëw taxaw ne nga kon Sonko daa bëgg a rey presse bi kon kay loolu mooy wane ni presse bu fenkat la voilà xam-xam rek laa réclamé nag xam-xam rek bëgguma leen xam-xam dama ne waa ji ne presse fenkat yi laay xeex Babacar Fall ne Sonko daa bugg a rey journalisme bi fii média la bugg a rey mooy wane ni Babacar Fall nee na presse bi ay fenkat lañ média menteur lañ réew mi sàcc bu ma fi jàpp dinaa la siikam sàcc bu ma fi jàpp dinaa la siikam sàcc nit la sàcc bu ma fi jàpp naa la siikam waa dëkk bi génn naan waru ko siikam sàcc buñ ko jàppee waruñu ko siikam <laughs> mais ku dul sàcc nan lay génnee naan sàcc waruñu ko siikam sàcc bi kay sàcc bi mooy génn <laughs> ne sàcc yi waruñu leen sieg am wala sàcc bëri na ci réew mi réew mi bëri nay nit mais am na sàcc sàcc yi sonnal lañ doomu aadama yi sàcc nag buñ ko fi jàppatee duñ ko bàyyi dañ koy siikam am ñu génn ne waaw c'est pas normal kenn waru si siikam sàcc yi sàcc ka <laughs> kenn war di si sàcc nga de wala sa doom di sàcc ki sa sa mor fa sa mouche Sonko waxul journalisme yi waxuñu journaliste yi média menteurs yi manipulateurs yi la wax ñiy sosalaate dootuñ ko bàyyi nga génn ne kon kiraa bu garay presse bi kon presse fenkat la yow koy avoué nga avoué nga ni fenkat nga avoué nga ni say mbokki mbaar ay fenkat lañ ay soskat lañ loolu nag Babacar Fall bu RFM moom moo wane ni ay fenkat lañ ñoom ay média menteur lañ manipulateur loolu leer na mais un journaliste digne honnête bu fekkee Babacar Fall bu RFM wax loolu danaan ko bul ma ci dugal li ko wax dëgg la bàyyi leen fan ak sos bàyyi leen sos man journaliste laa comme yéen meluma ni yéen bàyyi leen dem di lekk xaalis ay plume acheté doon ay plume acheté bàyyi leen doon ay corrompu bàyyi leen di lekk alalu ger bàyyi leen di liggéeyal ay politiciens xaj ku ci ñu leen di ñu leen di dressé ngeen di matt ay nit ay gor un digne journaliste loolu lay wax Babacar Fall parce que Babacar Fall daa taqal bépp journaliste que la di wax journaliste yi salte yi corrompu yi média menteurs yi ngeen ñëw taxaw ne waa ji day xeex journaliste bi kon kay yow fenkat nga yow yow Babacar Fall fenkat nga manipulateur nga menteur nga lâche que tu crétin de merde derrière ta presse corrompue Nous, on est là. On sera là. Prêt à y laisser nos vies. Vous avez perdu. Nous sommes là. Nous sommes là. da ngeen bàyyi doon ay xaju balcon am leen fit nu mu ko defee ñun di génn ci mbedd mi di raak ngeen génn ak ñun raak APR vraiment Macky Sall war na rus quoi ñi ko doon jàppale ay lâche kese lañ lekk lekk deretu Macky bi lekk alalu Sénégal toog nag média rek koo jigéen gis mi ngi yor compte ma waaye waaye Sonko amul doole droit non Sonko gën leen ndayam mbedd mi ngeen ñëw ñu raak góor jigéen yi gën leen nday mbedd mi ñëw ñu raak ñu gàlluloo leen nday xaalisu Sénégal bi léegi gën leen nday mbedd mi ngeen ñëw ñu raak góor jigéen yi affaire góor jigéen yi ngeen doon toog nday seen balcon yi ak seen seen salon yi di commenter rek di duur gën leen nday mbedd mi ñu duur leen ba yàbbiloo leen nday alalu senegal bi ngeen lekk tàppet yu góor jigéen yi fop maa doon focus ama xaj yi ñu may wuleen mbedd mi génn leen nday mbedd mi ngeen ñëw ñu affronté génn leen ñu affronté génn leen moo gën seen yëfu góor jigéen yooyu noonu après boo ci gis ñimewul mbedd koo ci gis mi ngi kon ginnaaw internet am tàppet non Sonko ok non Sonko génnal génnal da ngay dëggal gars yi dëggal sa bopp génnal mbedd mi génnal léegi ñu woon na yow doo góor góor jigéen la génnal ñëwal dajal def leen benn rassemblement rek def leen benn rassemblement ñu fekk leen fa cocktail seen nday ba ngeen molotov def leen benn rassemblement maa woo APR def leen nday benn rassemblement kese ñun ñooy ñëw dajaloo cocktail seen nday ay molotov ba ngeen yem ñu ne peuple bi ñooy xeex ak peuple bi génn leen góor jigéen ñi fu ñu leen fekk yéen a ngi seen ginnaaw ko média yi fu ñu leen fekk yéen a ngi ci ginnaaw média yi fu leen fekk góor jigéen yéen a ngi seen ginnaaw internet yi fu leen fekk yéen a ngi gën leen ndayam mbedd mi pouvoir kenn du ko jël nday ci ginnaaw portable gën leen ndayam mbedd mi laa wax ñu raag ndayam kaay leen kaay leen dañ leen a xiif kaay leen dinañ taxaar seen nday ba ngeen xam ni ñu leen daan yi leen amal parce <laughs> que boo leen génnee ci mbedd mi ngeen xam ne ñoo leen gën a nekk bànni dinañ fayu seen kaw ba tot <laughs> kenn du dund ci yéen billahi bés bu ma dégg première fois ñu ne APR génn nañ ci mbedd yi keroog lu ma am dinaa ko jaay barke alxuraan lu ma am naa ko jaay dinaa fayu ndey ci yéen ni ngeen attaqué sama kër dinaa fay dinañ cocktail molotov seen ndey ba ngeen plombé di ngeen gis ci réew mi ay jaas yu dóor ba ngeen daw yéen amu leen fit génn leen ñëw leen lu leen tere dajaloo ñaata yoon la ah, Pastef dajaloo fii nii di génn ci mbedd yi di raaga yéen génn leen génn leen xamu leen nu ñu leen xiifee sax du gouvernement bi leen xiif de ñun ñoo leen xiif ñun ngeen fanal sosal ñu ñun ñoo leen jàppal dans bés bu ñu leen jekkoo bës bu ñu leen jekkoo bës bu ñu amee possibilité boo leen ñu may ba ñuy jàkkaarloog yéen <laughs> ay bés bu ñu jàkkaarloog yéen ay bés boo leen génnee ba ñu profité ba infiltrer leen dinañ leen wan lu lu ngeen mësul gis ci kaw suuf. yillaay wallaay lu ñu amoon dinañ ko dinañ dinañ ko jaayante. <laughs> ñi leen di xaar boo leen dee góor rek génn leen dajale leen kenn terewu leen dam leen bind demande de sortie wala demande de marche dem leen ngeen affiché fépp ne mercredi wala jeudi wala samedi di ngeen génn marche yéen waa APR ñëw leen dinañ ñu seen nday ba doo leen ko dolleeti billaahi wallaahi keroog la ngeen di gisaat lan mooy cocktail molotov keroog danañ ñu seen nday ba diri leen dugal leen ci ambulance yi laa wax faj yi leen yéen réew leen sax moo taxit xam ngeen seen bopp de ci internet bi rek ngeen nekk APR boo gis mi ngi ci mi ngi ci internet bi di tagg di tagg di tagg di monter di teg dëbb jël laay bu jàmbur yi tagg këppati fii manipuler ay góor jigéen lañ ku nekk toog waaye Sonko saa yaa ngi sa pooju ndey jógal sa pooju ndey tànk yaa ngi ci média bi di rataf yaa ngi toog sa pooju ndey jógal ndey sa pooju ndey nga ñëw ñu jaag ñu jaamaarloo jógal sa pooju nday sa pooju ndey ba nga jaax ba nga jaaxaat noonu nga war a bàyyi jógal ci sa pooju nday laa la wax nga ñëw ci street bi tant que yéen a ngi ci net bi moom di ratatati ay yu bugaanari yooyu toog ci net bi ah, góor jigéen yi ah. yéen mbedd mi ngi ne salaw ndakaaru njaay jal jóob ñëpp a ngi dox waaw kay kuul parce que ñu leen gën a nekk tëg ñëw jël nguur gi yéen bu ngeen yoree nguur gi ñun may ñu leen jàmm ñëw leen ñëw leen mbedd maa ngi fi de lu leen tere génn ngeen mel ni ay kaña dugg nday ci pax yi toog rek toog ci pax yi di toog ci paxu kaña yi di yuuxu rek ah, ah, ah. yëguñu leen gënu leen kaña paxu kaña yi gënu leen paxu kaña yi gënu leen paxu kaña yi duulkat yi foo ngeen nekk ci paxu kaña yi rek di dagg di këppati di dagg di monte di duul ak a dajal ak ñi mel leen nday mbedd mi ñun ci mbedd mi leen leen woo li leen fekk seen biir kër yi seen ginnaaw page yi ngeen di duul ak a dajale génn leen ndey mbedd mi yéen waa APR génn leen mbedd mi génn leen mbedd mi opposition balcon xaju balcon jeex na opposition toog sa pooju nday di commenter jeex na génn leen nday mbedd mi génn leen mbedd mi la ñu woon lu kan mooy bandi góor jigéen yi jaajëf sama gars yi bëggee one love man on projet la ñun nag ñii fi comme nu ma ko waxee rek Sonko moom kenn du am accès ci moom kenn du am accès ci moom maanaam reewande ñun ngeen fii fekk ñun ngeen fii fekk ñun ngeen fii fekk ci reewande boo yëpp génn nañ nag deux mille cinq cent détenus yi ngeen tëjul boo yëpp ci street bi di leen xaar booy yi deux mille cinq cent détenus rek lu ñu leen mattal bu ñu leen ko gàlle ngeen dee deux mille cinq cent détenus politiques ak njaboot yi ngeen rey seen doom yi ñëpp a ngi toog nu mu dee dee dee dee dee am na benn cinq mille njaboot impacté yoo xam ne ñii da ngeen rey seen doom yi ñii ngeen sosal seen doom yi tëj leen ak ñu leen emal ak sama genre gii nga xam da ngeen taal sama kër ak ba Seex Baara bi ngeen tiire ay taal këram taal otom ay ñoom dàmbooj bi ngeen taal ay tiir ay ot gars yi ba nga leen màttal bés bu ñuy jag ko seen ndey yéen APR di ngeen rëccu ni leen seen ndey juree ci kaw suuf bés bu ñu face à face ci mbedd mii billaahi di ngeen xam ni di ngeen xam ni ñun ñoo capable <laughs> ñun ñuy ngi xaar rek occasion rek la ñuy xaar occasion la ñuy xaar bés bu ñu déggee loolu moom amul amul démocratie amul dara bés bu ñu leen déggee ci mbedd mi dinañ dinañ leen fekk si foofu dinañ leen fekk si foofu xamu leen nu ñu leen xiifee sax dañ leen xiif xiif koo xam naa enal leen benn xeetu enal moo tax cocc ngeen def cocc ci net bi rek ngeen nekk cocc ana seen leader bi ki ngeen bant tapet bi Amadou jul Dabal Ba mu ngi këram toog de uuf ñaari ñaari jeegam cocc la def <laughs> génn leen wala leen xaar ñun ñu ñoo doon seen leader góor jigéen yi <laughs> affaire góor jigéen yi tàggkatu vidéo yi monté ak audio yi monté këppati collègue tan fii duul fële patati patata ñeñeñee pia pia dagg duul dajale fen di fent ñëw leen la ñu taxaar seen ndey yéen waa affaire yi ñoo leen ko wax man boobu ba léegi maa ngi saagi seen ndey xanaa yéen amu xanaa yéen Canada amu leen APR <laughs> de Canada moom xanaa waa APR newuñu fi <laughs> man damay saaga seen ndey lu ne laa ah, di def mais doo gis doo gis ku dem moo laa man waa APR la Canada fii sax APR bu fi yëngu ma téggal sa ndey Canada fii bu fi yëngu ma sa ndey laa la wax man maa leen fi interdit APR ku ne APR ma daqaar sa ndey je le fii ku ne APR la fii waxuma waxuma yéen nag ñi ma leen génn ci mbedd moom naan APR ngeen ngeen di toog ci seen média yi di duul ak dajale fenn di fenn yéen leen ama xaraam yi eh, gars yi le combat continue fu ñu nekkoon rek foofu la suñu jàmbaar ji leader bi Ousmane Sonko mu ngi taxaw fu mu taxawoon di ko dëggal gis nga nu muy dëggalee boppam faalewu leen lijjantewu leen tey boo ko fekkee bureau fu mu nekk nii mu ngi solu ko jekk di recevoir di géy woo gars yi eh, bi fu mu toll gars yi di ko indil muy faalewu leen non barke alxuraan Sonko am ko leader dafa sedd xol ma fasal non c'est quelqu'un que j'aime bu may wax ci ay waxam sax sama xol day sedd man dama bëgg góor dama bëgg góor dama bëgg góor quoi góor dama bëgg góor man bëgguma góor jigéen bëgguma jiital nday sa deq mel ni ku lok sa nii sa deq mel ni ko lok day ololo bolo yo gogolo lolo lolo non mais la xasal douze bi dama bëgg a day dama bëgg a doy dama bëgg a doy Adama tuut dama bëgg a doy lool ba léegi bés bi Omar Sow mi ngi ci biir bés de daara dama bëgg a man ma nga sonn tuut président président non Omar Sow dama kenn douce yow président léegi mu day tuubee góor jigéen yooyu jeex na yang booy di def ay conférence taxaw di maintain di wax gaa yi di yuuxu di taxaw muy muy menacé di xëpp kaani naan lii du fi amati ndayam lii du fi amati te dañ leen di traqué dañuy tëj seen nday da ngeen di delloo xaalis bi da ngeen di goqi ndayam <laughs> ñun yooyu la ñoo loolu moo tax gars yi Sonko buy wax gars yi di ci fiir seen bopp ba gentleman guerrier dëgg xaq waaye lu ngeen foo leen foo leen loo leen bax ñu ngeer ko yee loolu mooy discours moo tax tàppe di ñu naa Sonko dafa war a xam ne nekkatul opposition léegi pouvoir la ne <laughs> fa ñuy menacer seen day ngeen di doome xaram la ngeen bugg Sonko mel ni Ousmane Sonko waaw gars yi non nañ bàyyi noonu non non dama dam damay traquer seen nday marquage à la calotte dañ seen ba seen pooju nday loqatal leen futtal leen ndayam ba ngeen sat jël alal gi jox ko Sénégalais dañ leen di traqué ndayam laa wax criminel dañ traqué seen nday Sonko ne dafa war a xam ni discours bii discours opposition la daf ko war a bàyyi nag da def discours góor jigéen mooy discours pouvoir dafa war a xam ni jël na katt la ndayam nga naan jël na pouvoir bi jël na nangam dama xaraam yi ngeen nekk fi ñu waroon tëral seen nday ren di seen nday benn par benn dafaguñ ko ngeen naa toog leen naan yéenay wax discours bu ñu war a def opposition bu ñu war a def pouvoir shut the fuck up ndayam discours bu ñu neex la ñuy def ma xaram yi góor jigéen yi ngeen doon biddo caga yi waaw oh, yéen ñëpp <laughs> ana seen band yi yéen ñëpp ndox yéen tàppe di déggal seen nday ngeen affaire doomi xaram yi ana Antoine ñàkk jom mi ngi ne salaw salaw <laughs> tundaya waay waay waay ci ginnaaw Antoine ñàkk jom bu ñëwee soo costume bi nag nag di duul non non xale bi xale boobu ngeen gis ci kanamu gendarme bi est-ce que nekkoon woon di ko protéger tey. di xool rek dañu dul di xool gauche droite pour benn journaliste bu ko ne non non. parce que nawul di ko protéger parce que gendarme yi boo xoolee dañoo sont très forts en armement très forts en formation parce que boo gisee ñu ngi yor seen affaire yi euh, protection yi ñu ngi newoon ci ginnaaw booy bi mais euh, ñoo xam ne lañu mun nañoo naaw parce que gendarme yëpp dañ lañ koy jàngal loolu ci formation wala bokk boo sax nee xeer dañuy naaw reprise xeer bi xale boobu dañ ko doon protéger di duul nag màcc seen tuñ di xool gauche droite ak ku leen wax ne bàyyi duul. o hmm, suivant ko ku ku kuy toog mais ban journaliste moo mën a wax duul yu mel noonu ban journaliste moo la mën a ñemeeti poser question. benn question xale bi ngeen teg foofu noonu nga duul duul yu tooy doon kan kan la ndaayam liggéeyul ba lay poser waat leneen. Juan bu mu fi ñëwee dañ ko suñu <laughs> force commando yi nucléaire bombe yi euh, GIGN bépp euh, dañ ko topp hélicoptère ñu topp ko mu dugg ci géej gi ñu topp ko après boobu ci plage bi bu ñëwee ci plage bi dañ topp après mu jël gaal gi ñu topp ko yi naaw euh, hélicoptère yi ko mais bon ndox mi ndox bu ñu ko jàppee c'était du ndoxu Sénégal du ndoxu Mauritanie ñu ko dàppee ci digg bi bi ndax géeju Mauritanie ngi nii géeju Sénégal bateau gaal gi dafa ñëw ci digg bi rek ñu këf ko foofu lañ ko tëbee tar jàpp nañ ko yóbbu nañ ko rëbës <laughs> waaw voilà la dañ ko euh, mandateur nga gis que ah ah, ah, ah ah Antoine <laughs> loolu la wax te muy dul daa tax nga de man Antoine dul rek laa ñàkk jom na nii di xool gauche droite nag ku ko ne bàyyi du napp journaliste la ku ne di ko xulli donc Juan Branco jàpp nañ ko ci diggu ndox mi ndox moom nag du ndoxu Mauritanie du ndoxu Sénégal ci digg bi lañ ko jàppee juste boobu dafa fekk gaal gi parce que dañ ko topp topp ko ci plage bi di ko topp di ko topp parce que boobu mënuñu ko woon jàpp mais ci diggu ndox mi lañ ko jàpp ci au milieu au milieu de la mer donc gars yi di wax ne Mauritanie du Mauritanie Mauritanie Sénégal la frontière bi ci frontière géej gi lañ ko jàppee waaw booy dañ la nan nan dañu xam nga ñun say bopp yi day naaw ñun dañu dañuy réfléchir man Antoine ñàkk jom man kan moo ma mën a jàngal moo tax booy nag affaire bu gën a <laughs> loo xam ma ko waxee fii ñëpp a yuuxu lan la booy cocktail molotov lu ñu koy wooyee café Touba <laughs> yooyu ñun dañu daf yow ñun suñu bopp yi day réfléchir yow Antoine yow dañ ma mën a jaaxal café Touba lañ koy wooyee booy léegi duñu wax duñu wax cocktail molotov café Touba lay wax du xool nag ban journaliste ko bàyyil duul

Antoine a nga mel ni ku nekkatul fii ci réew comme kaña ci ville bi Antoine a nga mel ni kaña ci ville cot cot cot kon ñii ñëpp noppi nañ <laughs> waaye ñi ngi ne salaw kuy boo doon téygal ndayam mbéj nday Antoine sax du yuux do <laughs> te day bañu ne Antoine a ngi fii comme kaña nii nii la ñuy làqutoo guddi bu guddi la ñuy génn vuruj vuruj vuruj ku dégg <laughs> guddi la ñuy génn guddi ay kaña kaña ay kaña force lañ guddi la génn bu <laughs> doo gis Antoine doo kenn du dox daje Antoine mukk comme kaña ñoom ñëpp Ismaïla Madior doo ko teg bët comme kaña guddi bu guddi kaña lañ parce que bu xam ne ñu bëccëg bu ñu génnoon jàppal teegalal ndeyam dug dug comme ni ñu reyee kaña deew kaña taj yeneen birig dug moo tax xoolal guddi ba guddi la ñuy génn comme ay kaña ah non mais loolu du compte max compte mix la compte mix boo xoolee de compte non non Adji Sarr compte max la voilà man dama jàng droit man Ismaïla dama jàng droit man dama naan man Sénégal ko ndax maa la ci droit dama dama dama ko naan dama ko guux gàll ko je te le dis enfin donc man droit constitutionnel droit administratif droit légal droit ko kii laa dama ko lépp laa yëy lépp laa yëy dama ko yëy ko donc max la. du compte mix compte max la non xam naa lu ma lay wax ma compte max parce que bu ñu jour bu ñuy ñëw di ko jàpp buntu këram la boobu bu fekkoon ci biir kër gi la compte mix la mais bu mu génnee benn paa la te ñu këf paa tànk bi tànk bu mu génnee ci buntu bi lañ këf donc foofu compte max la parce que mbedd mi la mbedd mi la compte max la bu fekkoon ñaari tànk yëpp mi ngi mi ngi ci biir kër gi compte mix la mais donc bu mu génnee benn tànk bi ci lañ këf gendarme bi tëb këf këf tànk bi donc ne ko lii compte max la parce que tànk waa ngi ci mbedd mi donc <laughs> xam nañ li ñu wax quoi xam nañ li ñu wax mais xool la ñun ñëpp seey ñoom ñëpp a seey ñu ngi ne selaw <laughs> bés buñ leen gisee ci mbedd mi bés buñ leen gisee ngeen di taxawaalu ci mbedd mi dinañ taxaar seen nday yéen ay Antoine ñàkk jom ak Ismaïla Madior Fall ak Sidiki Kaba génn leen génn leen <laughs> réew mi yéen jeexal ngeen fi jeexal ngeen fi dooma xaraam yi kon gars yi on protège ce projet encore une fois protéger le projet ne leen ko jaral projet bi deux moo la defagum amul lenn lu ñu fa mën a def Sonko ak Jomaay ñi ngi nekk ci wutum xaalis gars yi yóbbu nañ xaalis ba yëpp trésor public dërëm nekku fa loolu moo tax ñu teg leen choc yi pour ñu pay impôts yi bu ñu fayee l'impôt yi par force doole mbaam luñ ci teg mun nañ leen wàññi leen ceeb bi wàññi leen diwlin bi mais ba ñu neen munul wàññi diwlin ba ñu neen munul wàññi ceeb ba bañu neen ak làmmiñ yi kese mun amul lu muy wàññi trésor yóbbu nañ xaalis ba yëpp sàcc nañ alal ga dañuy fay l'impôt yi par la force doole mbaam ñu la ko loo ci teg mun nga yombal yombal ceeb nañ ñu fay ba pare ñu doog a réclamer ceeb ak diwlin ñun xam nañ suñuy besoin primitif xam nañ lu ñu bëgg xam nañ lu ñuy wër xam nañ suñuy objectif te ñu ngi ci donc on protège ce projet la ba nekk sax ci ay débat inutile ay débat inutile instant don de soi la don de soi pour la patrie donc de soi aar leen projet bi aar leen projet bi protéger leen projet bi deux mille cinquante la protéger leen projet bi deux mille cinquante la aar leen projet bi taxaw leen ci projet bi bu leen jàpp ni gagné nañ ko c'est fini bu leen jàpp ni affaire bi jeex na noonu république yaa ngi fi Macky Sall yaa ngi fi xaj yaa ngi fi bukki mbow yaa ngi fi chien errant yaa ngi fi. les chiens boueux galeux de la l'APR ñi ngi fi seeni lobby ñi ngi fi presse corrompue bi mi ngi fi taxaw leen à vos gardes à vos la ak fayda fullaa jaay da xaar maa ma ñoom jeexal ko donc foofu lañu leen di woo ci la ak fayda ci protéger projet bi mooy lu ma leen waxoon ku laalul sama waa ji laaloo suñuy concept ak suñuy philosophie man amul problème de maa ngi ci samay soxla dox sama soxla nee naa leen saa yooyu leen ma gisee gis naa ay ennemis de la république yu dox pour ñëw ci sama projet pour yàqu ko damay génn loolu moom mayuma ko kenn ba ma fi génnee mooy bu ñuy jéem a jàpp sama gars yi di leen jéem ma kii xëpp ci kaani dawaat naa démb Sonko lu muy wax rafet na patriote yëpp gis nañ ci seen bopp képp kuy euh, panafricain gis nga ci sa bopp communauté panafricaniste yëpp gis nañ ci seen bopp lâche yi bande yi rek ñoo ci gis su seen bopp donc ñëwaat naa waxaat damay delluwaat nag damay delluwaat non bon seen TV kaay boycotté nañ ko bu yàgg yow tamit yow yow yaa des seen TV kan nga gis seen TV seen TV da nga <laughs> demal ci internet seen TV du am trente trente vues ah non seen TV kaay bu xool boycotté seen TV sax da nga leen demay promotion kaay fàtte nañ seen TV bu yàgg Anday Diop yow foo nekk yow. Ndeye Diop newul ci réew mi Ndeye Diop yoo xaas bi nga yàgg nga de kañ nga yëg seetaan Sen TV kan ko fi gis muy kan ban doom ku baax moo fi seetaan Sen TV koo fi gis muy seetaan Sen TV Ndeye kër nga dugg fekk fa Sen TV bu ku taal Sen TV kan ay waay yéen Ndeye Diop moom ma nga ñuy bëggoon wax ndaka de moo dugg ci mbir yi nday génnal nday génnal fa nga taxaw génnal foofu Ndeye Diop génnal fa nga taxaw seen TV kenn seetaanu ko xaw ma noo def ba euh, euh, yi bu kan la ndayam bon ba muy seetaan seen TV kan loo lo kan ku fa kan moo fa loo fay jàng <laughs> yow yow ndey ay bàyyi nañ seen TV yi gars yi ñu ay seen TV di yow <laughs> seen TV xam nañu dee nañ yàgg léegi ay waay ku dee ba maxe ndey ju fël fële naan ñu ay euh, euh, <laughs> ndey seen TV dee nañ ba ñu nàkkal leen ba lekk seen nàkka saraxal nañ leen quarantième jour ba yàgg naa quarantième jour ca deuxième tour ba borom seen TV ma ngay xaar deuxième tour ndey borom euh, deuxième tour waa ji xees ji gàtt ji war a jël pouvoir bi nga xam ne sëriñ bi daf ko waxoon na ko góor gi daf nekkoon Macky Sall bu fi jógee ku xees ku gàtt moo koy jël di xaar deuxième tour ma nga fa de gars yi moom <laughs> rek ko des bul ko sax jege bul ko laal ko jege ma nga xasoo xunnu yàgg toog fa di xaar deuxième yi dem nañ <laughs> ma nga fa toog ba léegi di xaar deuxième tour waaw voilà na toog xaar deuxième tour en attendant ak góor gi lu mu ko waxoon tamit nee woon na ko Macky bu fi jógee élection amagul moom moom waa ji élection amagul ci moom. parce que góor gi daf nekkoon bu fi Macky Sall jógee ku góor ku gàtt ku xees moo koy jël loolu la góor gi nee na ko benn góor. comme dëkk bi ku ne daa am góoram moom góoram nee na ko bu fi Macky jógee ku gàtt ku xeesoo koy jël te moom nee na mi ngi deuxième tour di xaar ko ko bàyyi ko deuxième tour. bul ko sax jege na nga xeeñ kun nag deuxième tour toog fa yàgg gars yi dépassé nañ ko moom ba léegi élection amagul ci moom moom deuxième tour la te góor gu xees ku gàtt koy jël <laughs> kooku ko bàyyi foofu ko mu ngi ci mondam <laughs> yàlla ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana ma nga ca mondam moom ma ngay xaar deuxième tour te Macky Sall bu fi jógee incha allah xam nga Macky Sall nag bu leen fàtte tamit de juin juin bii la waroon la waroon kii donc la waroon dem kon xam naa ne peut-être waa ji def nañu élection ba pare moom moo ko jël bugaan parce que góor gi nee na ko gàtt ko xeesoo koy jël moo <laughs> bugaan <laughs> bugaanoo ko jël <laughs> borom cinq cent mille yi koor aji saar borom gaaw bi di xeeñ niw bascule ci kaw aji saar di xeeñ niw borom ah, ma déggante moom mu mujjee dégg na ma benn ajjuma mu dem seeti jabar ji jabar ju gaañu ak sama bàmmeelu jabar ak sama bàmmeelu jabar ñu <laughs> taxaw ci maa ngi di taxaw sama bàmmeelu jabar ak sama bàmmeelu ja ajjuma ma ne ko sa bàmmeelu jabar boo ci taxee lan lay changé sa jabar daa dee am bàmmeel loo luy changé nan la nit ak sama bàmmeelu jabar loolu loolu ban waat la mais bugaan man dépassé naa yooyu de du ma sénégalais ay par parce que sëriñ kii parce que sama bàmmeelu jabar ak sama bakkanu yaay sa bakkanu yaay sa yàlla yaay boo fenee sa bakkanu yaay yàlla dindi sa bakkanu yaay sa bàmmeelu jabar ay après ak sama bàmmeelu maa ngi nii di ñëw taxaw sama bàmmeelu jabar ak sama bàmmeelu jabar ay eh, après dóor yooyu mooy yen yooyu ñu dóoree sénégalais dof yi nii ak sama barke ak sama taraayal bàmmeel ak luy loolu loolu ban waat la fu ko yàlla bind ay feni neen la amul fu ko yàlla bind ma ne ma ne ko bugaat ba ay bàmmeelu jabar ak munoo wax a wax a ba sa bàmmeelu jabar mu heureuse munoo wax a wax ba yàlla génne sa jabar taxawal ko <laughs> boobu laa ko gëj a dégg nag <laughs> maa ngi nii taxaw sama bàmmeelu jabar ak sama bàmmeelu jabar <laughs> Ah. <laughs> ma gisee gaa yi di bandi bandi lu fi non ñoom Magenta bu leen gisee ñuy bandi bandi lu ci kanamu <laughs> Sénégal yi ay ree la may def <laughs> te ko ci képp bu këf xuuy téye ko cocc lay def cocc moo tax des fois ma naan bu mu bu mu waxoon lépp lu may daje gars yi non réew mi dañ naan noo mënul nekk ñi fi bandi bandi lu yëpp yëpp yëpp amul ku ci toog te doomoo ku ma woo nag damay këf say xuur tey ñaari xuur téye ne waxal nga ne waxal ak sama bàmmeelu jabar ak xoolal moo laa mun naa ko waat ñu maa ngi taxaw ma boxam ku la ñuy def cocc cocc yabu bu ñu wax ak man cocc bu ñu génnee nag ñoom sénégalais xamuñu la ñuy bandi seen kaw ah oh, duñu dara jëttani du ñu nix bu ñuy wax ak man ak yar la ñuy wax ak man cocc la ñuy def seen xuuri laay téye rek boxam di boxam donc man duma laal dara lu yaram bi di rëy rëy man ñaari donj yi laay téye rek nag ci ñaari donj yi taxaw waaw opération boxam xuur rek duur ma boxam xoj xoj waaw nga ne nga ne lâché bàyyi nga ne bugaat nga ne bu waat nga ne <laughs> non voilà te daal il faut ñu nga boxamaat da ngay boxam di bàyyi di boxam di bàyyi comme caaf togtu la ñuy def dox ñu gën a jàppale bu ñu génnee nag nekk ci kanamu senegal yi di band di bandlu di kii man damay toog rek ay ree la may def sax billaay walla ay ree yu neex damay toog di xool nu ñuy fooyee nu ñuy golo golo <laughs> ku ma ci moytuwul boxam <laughs> <laughs> maa ngi leen di xaar man maa leen di xaar kon nag gars yi big up one love much love and thanks di woo patriote yëpp di woo sénégalais yëpp di woo tout le peuple sénégalais ñu protéger projet bi ñu sàmm projet bi ñu défendre projet bi ñu taxaw debout ñu doon ñu vigilant ñoo xam ne dinañ accompagner projet bi bu projet bi réussir totalement ngeen gis ci seen bopp incha allah donc Sonko Diomaye for life et le combat continue le combat continue. Peace and love and I'm out.